ينملها بلا مناع ولا انتهاء ينملها بلا مناع ولا انتهاء Bienvenue sur Sud bismillahi rahmaani rahiim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo seen ji rek mu tuddee alkitab ngeen koy am yoor yooru aju mu jot yaxtu wi dellu ko defal si ngeen ci ànd ak seen ak seen mbokk alxaaji Serigne Mbacké Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñaan jàmm ci réew mi ak réew yi ko wër jéggul way déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew ñëpp sama gaa yaa ngi nii Oustaz Alioune asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu alxaaji sëñ Mbacke Sylla asalaamaaleykum waaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ma bàyyi leen ngeen nuyoon yi tabarkàlla jërëjëf oustaz ñu fay la nuyoo teg la ci nuyoo nuyoo waa réew mi ñëpp ak waa bitim réew beral nuyoo nag sama xarit bi sëñ Mbacke si la ñaan nuyoo bi na ko fekk jàmm ak salaam allahuma amin haj Mbacke jërëjëf oustaz ngi lay fay nuyoo ñoo ngi lay nuyu te di la siyaar ci àjjuma ji di nuyu auditeurs yi Sud yëpp di fay nuyoo tey nuyu suñu xarit bi imam alxaaji oustaz Alioune Mbaye borom picc nag dali foor ak Kër Massar ak ñàgg ñàkk rob hmm. <laughs> jërëjëf oustaz <laughs> mbokk yëpp a leen di fay nuyoo tabaarkalla ci biir réew meeg ci bitim réew oustaz nu jotaay bi tëddee incha allah oustaz nañ ko doon defaree lañ ko fees yéene wéylee def ko ñetti xaaj xaaj bu njëkk bi dina indi suñu laaj ngeen di si tontu bu 10 heures jotee ñu ubbi la bàyyi mbokk yi ñu indi seen laaj seen commentaire te gàttal ko bu di see demee ba teg fanweeri simili nag ñu jéem a ñëw tontu laaj nga xamante ne ñoo fi rot yi yomb ñu tontu ko yi yombal ñu natt ko ba bëgg a ñun bu nekkee bitim réew ñooy woote ci ki bëgg jot ñii def émission bi ci biir émission bi oustaz noonu nga ko waxee am na solo ci fàttali bu fekkee man la wala oustaz Alioune wala yow moomu day bàyyi ba midi jot mu door ñoo woo lu ko mooy mën naa dugg ci biir son bi dugg wala mu perturbé te du tax mu jot. tabaarakallaahu jërëjëf. jërë ngeen jëf yéen ñi ànd ak ñun jotaay bi ci biir réew mi ak ci bitim réew asalaamaaleykum. mboolem ñi jaay kànkaa yëri ak fu ñu mën a nekk tabaarakallaahu yéen kànkaa yëri asalaamaaleykum. bitig mbagg yi ñax marsa ambulant asalaamaaleykum Mamor Dia Padois asalaamaaleykum yàlla na yàlla nangu say ñaan ci nun nangu suñuy ñaan ci yow ñu nekk ci bureau yi tabarakallahu yéen te àgg ba jàpp si defem seen rajo ci seen ordinateur asalaamaaleykum yéen ñor sareet tabarakallahu ak lu ngeen mën di sëf ca sareet ya asalaamaaleykum taxi clando asalaamaaleykum ñu ne ci hôpitaux yeeg dispensaire rek barab bu fajukaay yi yéen tam asalaamaaleykum malade yi yàlla yàlla saafara leen. gardien yi nga xam ne ñooy garde buntu kër yi wala garde buntu euh, société yi wala garde buntu entreprise yi yéen itam asalaamaaleykum sécurité. Aboubacar Sadiq Niang asalaamaaleykum. teer yu màggat yi nuyu nañu leen asalaamaaleykum waaye teer yi màggatagut it tabaarakallaahu asalaamaaleykum li ngeen di ñaaw rafet na li ngeen di ñaaw jekk na tabaarakallaahu Beldam Couture tabaarkallaahu asalaamaaleykum ña fay liggéey ñëpp ak njiit la. waa Sodida ci biir ak lu ñu fa man di nekk yéen ñëpp waa Sodida nuyoo bi yéen a ko moom asalaamaaleykum. Babacar Ndiome Dia asalaamaaleykum. kon nag bu ngeen xoolee seen monteur 9 jot na ba teg 18 minutes tabaarkalla damay daal di dellusiwaat ci studio bi. ginnaaw bi ma ne Xaadim Gueye jaajëf ba noppi ne ko asalaamaaleykum ñaan gi nga ñaan yàlla na nangu tabaarkalla nangu fi nangu fële ñoom ñëpp ñoo ngi ànd naan amin tabarakallahu kon nag oustaz Alioune asalaamaaleykum ma ni waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Mbacke asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu tafaddala maskurayni fa jazakumallahu xayra shukran shukran shukran jazilan jërëjëf gàcc ngalaama yaakaar naa ne sëñ Mbacke jaram <laughs> jaar na fa mu daan jaar wallaay ndeysaan nuyoo bi matale na <laughs> démb la ma benn mbokk woon ma neel oustaz ñun maçon yi ci safo yi quatrième étage. ndeysaan nañuy tudd ndax na leen ca ngelaw li tiim Ndakaaru gépp. ndeysaan monté suñu égout. na ci lenge <laughs> nekk ci lenge yow. ne ne leen tudd naa leen yéen maçon yi ci kaw asalaamaaleykum. <laughs> ndeysaan. am na solo trop. suñ mbàkki yaakaar naa ni nuyoo yi matale na ni ma ko baaxoo waxe xam naa ñi ciy bëgg ñëpp ku leen bëgg a jukki bët dana seet duñ matal mu ngoog ñi ne ci oto yi di xëy jamono ji oustaz ñoom it xam naa ñi ngi ànd ak yow ña àgg seen i bari na ci kilifa yoo xam ne jamono ji ñi ngi jàpp Sud FM di la wétli ko mm-hmm. ay ca imaam yi mu ngoog tabarkal te loolu rek dafa doy sëkk ndax jamono bi toll boo demee ci marché yi wala nga dem ci tata yi wala fu mën dem mm, rawatina marché yi tabaarakallah déglu ko génn lay doon tey nag xam ngeen ne groupe bi dafa am mm-hmm. dëj mm-hmm. groupe Sud Communication dafa am dëj mm-hmm. sunu mbokk Seck am di am Seck moo génn àdduna démb mm-hmm. ñëpp ko xamoon ci rajo beeg ci journal ba mm-hmm. groupe bi yëpp ko xamoon ci mbaaxam ak laa biiram ak bëri kaf ak bëri ree man musuma fekk mu mer mukk yal na ko yàlla yërëm amiin yal na àpp sore nekkutoon fii waaye ma nga woon ca journal ba fa liggéey liggéey am solo di dox service commercial yu am solo yal yàlla waaye fël suuf ci kawam amiin amiin waxam na ñu ne bu ñu jullee ajum ba noppi lañ koy waajal yóbbu ko yoof ci këram gu mujj waaw àdduna nag noonu la waaw fëlil kulli min baxril na nasib waaw tabaarkàlla neex nga dëgg oustaz jërëjëf man mii xam naa ko bu baax ndax ñoo dëkk mhm. cité soleil ak cité belvédère bi ma dëkk ñooy séenante mhm. daanaka bi ñu mujjee wax téléphone maag moom matul semaine. Mhm. muy ko baax di mbokk ci imam Mor mhm. di rakkam di léppam moom tam ñu ngi koy jàlle imam bu baax a baax. tabaarakallah ci sa tur ci sunu tur yi ñëpp di ko jaale groupe bi wax dëgg mhm. yàlla. di ko jaale Baye Omar Gueye. waaw Baye le directeur waaye di ko jaale Babacar Touré. ak ñoom Abdoulaye Ndiaga Sylla ak ñoom Abdoulatif Coulibaly. groupe bi yëpp. ndeysaan ñëpp nga xamoon ak sunu mbokk Omar Diouf. Omar Diouf Fall wala ndeysaan. jërëjëf Oustaz Sëñ Mbacke am na solo am na solo jërëjëf xam naa teg euh, suñu njaal ci seen njaal moomu rek. Mhm. teg ko ci seen i loxo ngeen jàllale ko ci kilifa yooyu ngeen tudd. suñ am di nekkoon foofu ci site quotidien mhm. ci service commercial. Mhm. Euh, doonoon ku baax bu masaana ñëw fii ci rajo bi kaf rek lay eh, nekke di ko jaale personnel bi yëpp na ñi nga xam ne eh, bi rajo bi nekkee immobile faat seen site quotidien ak ci FM mbokkoon benn euh, fu ñu nekk. xam naa booba la jaxasoo gi gënoon gënoon a am. masawu xarit yëpp ak am di jàmm yi di ko jaale ay mbokkam di ñaan mhm. suñu borom mu defal ko yërmandi bismillah mhm. bokk na ci mbaaxam sax di yàlla boo léegi si ay booba sax boo ko gisee wala stage commercial yi mu nekkaloon seen yaram yëpp tey dañoo dañoo dañoo sedd ndeysaan waaw kay affection bi biñ ko bindee la tàgg bu jox ko ko mhm. àll ba dafa la ko mujj jox ndax moom na ne mënu koo tàggi mënu koo tàggi waaw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ko tàgg bu baax ñoom day faat si dem suñu mbokk yooyu nga xam ñoo ko moom ñoo nekkoon. ndeysaan Fat Ndiaye. ndeysaan tabaarkalla ñoom Daado. ndeysaan ñoom Xadi Taal ak. wallaay wallaay ñoom Mari <laughs> mbokk mi fi ma sonn nekkit maam Paati te yoroon sport bi. waaw moom itam dafa wàññikule doomam. Mm-hmm. doomam tabaarkalla. maam Paati Ndoy ndeysaan. waaw maam Paati ngeen xam nekkoon na fi jaar na fi tabaarkalla. yal na yàlla yërëm ñëpp. amiin naa bu sore. te yàlla may xol bu muñ. amiin amiin jërëjëf. kon nag yaakaar na sëñ Mbàkke hmm, imaam ñu dugg ci kër yi bismillah mën nañoo dugg ci ah tey ci kër yi nga jëm laa bëgg a dugg tey ci kër yi nga jógee fa nga jëm <laughs> ci yi laa jógee duggaat ci kër yi bismillah euh, oustaz tey ji dama xalaatoon nu waxtaane waat mbir kër yi fàttali fàttalente fàttali suñu bopp hmm. doole ñaax ak soññ ndax loolu yàlla da ko fonk lool hmm. ñaari gor yàlla bool leen ci kër ñu war a construire njaboot. bis bu nekk war nañu waxtaan ne la leen boole kenn ku ne lay sa cër nga di ko sàmm ndax mu gën a dëgër. bii bis nag dama bëggoon ñum ci jigéen ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu ñuy liggéey. secretaire yeeg commerçant yeeg ñi yàllu ci administ nekk ci wàllu administration maanaam kuy liggéey daal de manière générale. jigéen juy liggéey jigéen juy liggéey. Mhm. lan mooy taxawaayam ci njabootam. lan mooy taxawaay cib sëyam lan mooy taxawaay cib liggéeyam. waaw jërëjëf ci sa euh, ubbi gu am solo geeg fi nga dugg tey. fay naa leen nuyoo fay woy déglu yëpp nuyoo. fi nga wàcc ñu ne nañ nooy na. <laughs> ndeysaan. Euh, kër yi jar na di waxtaane waaye jigéen ñi xëy di liggéey it jar na di waxtaane <laughs> seen jëkkër yi it jar na di waxtaane mhm. foo ci dugg foofa la bu njëkk ca cay maam mhm. jigéen daawut liggéey yi mhm. day toog ci kër gi ñuy liggéey di ko yët liggéey di ko yët léppam di ko fa fekk nga xam ne daawul soxla daanaka ci bitig bi noonu la meloon jamonoy dox góor di teggi loxoom ci kër gi ndànk ba mu jàgg mu ne ji ñu ne jigéen demal nga wuti di def ci kër gi li ngay def ci kër gi nag mooy bu xorom manqué walla yooyu ñu dem ba mu yàgg liggéey bi jural ko dara bu ko boroom kër bi gisee xam ne kii mi ngi am dara mu commencé <laughs> rocc ko ci kër gi maanaam li yonent bi ne woon toog li yonent bi ne woon toog leen ci kër gi góor wuti la dem ba yëf yi tàmbalee wàññeeku di war góor di war jigéen ci nekkin ci kër gi ba yëf yooyu jural leen nu génn génn gi baax na ci ñoom waaye charte yañ cay def pour génn su manqué rek ñu sonn ki ñu nekkal ci kër gi bu comprendre ñu sonn ndax wax naa la ñaar ku leen yërëmut doo leen dimbali muy jabar ak sëriñ kuy ñee sañ mbàkki si la doo ko dimbali kuy ñee jabar doo ko dimbali loolu ñaar yooyu la am solo ndax léeg-léeg nit gis sëriñ mbàkki mu yor téléphone baax rek nga naa ne ko ah ante oustaz waaw léeg-léeg nga gis mu yor Euh, ordinateur baax rek nga ne ko ah waaye sëñ Mbacke yow léeg-léeg bu toilette mu rafet sax nga ne ko ah nga xam ne kon kooku mi ngi koy ñee <laughs> noppi na laa dimbale jabar tam noonu la mel jigéen ji liggéey su fekkee lum soxla man koo fajal boppam bu jëkkër mu comprendre daf koy bàyyee boppam lu am def ci boppam baa ci bokkam te bàyyi ko moom adduna tukki <laughs> ala ko liaal foofu nga dugg am na solo lool. jërëjëf nga sukkuraan ci sa eh, dugg bi. am na solo suñu mbokk xam naa bala ngay seel. mais oustaz ci wàll woowu bu fekkente ni jigéen fi ñu ko waroon féetee léegi mooy dem ba def féete boppam. Mhm. est-ce que baat bi nga xamante ne moom la góor amoon wala éducation ba nga xamante ne moom la jigéen amoon muy responsabilité yooyu ko nan lañ koy lijjantee. waaw da ngay rocc ko te duñ ko tey ndax charia du wax ne comme yaa yaay yor kër gi yaay wax déedéet. du ko wax loolu waaye ci wàllu tëralinu pénc mi ba mu koy def duñ ko tey ndax koo ñett-ñett bu yàgg mu fittiku walla mu yuuxu boo yoree sa kër fi ne loolu imaam Ayuba di wax <laughs> yàlla ko yàlla yokk wér nee na boo yoree sa kër koo bëgg a régler de fexeel ba muy regg Ayuba mu ne koo yor sa kër boo bëggee di ko regle fexeel ba muy regg ñu ne ko waaw mu ne boo bañee wax ju sew del indi ceeb bu sew waaw mu ne fooral te fuur waaye nag bool mel ni café bul wexaat tey yooyu muy wax noonu dafa am solo moo gis nga su su ci penc bi bu bu jigéen di liggéey di def ci kër gi ku góor ki bu seetaanee léegi tey mu wax ci kër gi ñu wax tontu ko ndax alxuraan daf ne woon arijaalu qawaamuuna ala nisaa daal ni bi ma faddala bi baaduhum ala baad daf caa teg wa bi ma anfaqu yàlla mu ne li ngeen di joxe tax na ma jox leen baatu kër gi kon joxe day tax a yilif sa kër day tax a yilif sa kër soo ko noppee def mbaa nga wàññi ko léegi tey ki nga nekkal yëkkati kàddoom même su ko tëyut ndax ko ma an fa xooji dafa dafa am solo bu ñuy laaj may gu njëkk ga ca jàkka ja duñ ko laaj ku jigéen ki bu ñuy laaj dépense duñ ko laaj ku jigéen ki ñoom ñoom fàllu Cissé ñooy wax ne bu ñëwee ci kër gi fekk jëkkër ak jabar ku ne di wax danga naan lu ngeen jote bu ko góor ki ne dama ne ko noppil mu bañ ñu ne ko jigéen ki yaa tooñ bu ko jigéen ki ne dama koo laaj mu bañ ñu ne ko góor ki yaa tooñ <laughs> noonu lañ koy jàngalee ñoom waaw yombut nag mhm, xëy liggéey yombut mhm. liggéeyu jigéen yombut mhm. gérer liggéey bi yombut boole kook gérer kër gi yombut dara yomb ci waaw léegi nag su nekkee ku ko comprendre koo xam ne ki kafaa bi doy na seen diggante loola mën nañoo dem ñoom ñaar ñëpp ba ilaa ma ilaa jëlu musamma incha allah. wa shukran am na solo jërëjëf sëñ Mbacké am na solo oustaz <clears throat> jërëjëf oustaz Mbaye jërëjëf oustaz ci noonu nga ko e, introduire dafa mel ne am na kon bu ma ko déggee oustaz euh, benn fànn goo xamante ne benn aspect boo xamante ne mën naa tax sëy bi du neex mooy su fekkente ne jëkkër dafa teg bëtam ci li jabaram di am. Hmm, loolu mën na ko jur. waaye léegi oustaz dafa am yeneen euh, beneen côté boo xam ne itam bëgg naa nga ñëw ci. ci côté inconvénient boo xam ne mën naa dal jigéen ji. Hmm, hmm. ji nga xamante ne bañ koy muur muy sëy yi ca démb laay wax nag dafa mel ne yooyu mi ngi wàññeeku léegi mm-hmm. am na yuñ ko dénk nu mu war a taxawee ci kër gi war koo taxawee ci njabootam war koo taxawee ci sëyam war koo taxawee ci borom këram mm-hmm. su fekkee day mel ne ñaari engagement la am ci àddunaam mm-hmm. engagement bi ci biir kër gi nga xamante ne borom këram da ciy xaar ak engagement ba ca bureau ba nga xamante ne moom moom itam service am daf ko ciy xaar mu bëgg a mataleendoo ñaar yëpp loolu nan la koy nan la koy mën a gérer jërëjëf am na solo danaa wax ba ma demee bitim réew ñaare ne leen léeg-léeg jigéen jógee senegal ñëw bitim réew di sëy si ak li aju ci sëy lépp waaye ay mbokkam di ko santaas ba mu jàpp ne day liggéey si mbokki ku góor ki mbokk jigéen ki mhm. maanaam jigéen jóge fii fekk jëkkëram bitim réew waaw loolu tam mooy am léegi ci ci sëyi léegi mhm. dañuy muur ndaw si jëmale kër jëkkëram muy sëy waaye comme jàng na dara wala nab na mi ne ci dara ay mbokkam ñoo koy santaas sa njàng mi li nga ci daj doo xëy bàyyi ko toog ah bien mhm. ba mu jàgg mu jàpp ne kon moom dafa sëy si mais dafa liggéey si mhm. la ma xamoon kon naa liggéey ndax ma dimbale samay waajur mhm, foofu nag mbàkk léeg-léeg mu am ñuggu-ñuggu boo xam ne bi bu fa nekkee bu comprendre ante amul rek ñol-ñol euh, daal di tàmbale am ci biir sëy bi jàppal bàyyil waaw loolu moo koy jur nag mooy ku ñuy muur ne la kaay sëy da ngay sëy waaye say mbokk ñoo lay sentence munoo ñàkk dimbale diw munoo ñàkk yor diw munoo ñàkk diw dif nangam mu ñëw sa njàngam la mu lay jëriñ wala góori léegi ñu joxatuñ kenn dara waa très bien sama liggéey bi léegi nag loolu ci laa yor sama bopp loolu su baree rek amatuñ njëriñ tabarkàlla nga tàmbalee nag léegi kon ragal santa yu la seen mbokk ñu def mm-hmm. nga sol sol daal wuti daal di liggéey yi mm-hmm. su boobaa nag liggéey bi boo moytuwut beneen liggéey bi ci kër gi léeg-léeg da ngay wut jànq bu la fa nekkal mm-hmm. ne ko nekkal ma fii man ma dem waaw nekkal ma fii ngeen di seddoo li nga am man ma dem léeg-léeg ngeen seddoo li nga am léeg-léeg nga yéen ko sa jëkkër mu mu féetewoo ko. Mm-hmm. waaw yéen a jëkkër yi. Mm-hmm. waaw ah. lu yombul daal la. <laughs> am na solo Oustaz mbay xam naa ne itam Oustaz bu ñu ko gënee xóotal ci wàllu liggéeyu jigéen. daa mel ne de xam naa ne daal xam naa yeneen système ñoo ko fi indi waaye jigéen ñi liggéey ci njàngan mi may def ku ci dem ba am doom sax liggéey bi day tàmbulee mett ci yow tàmbul ndax buñ boo xoolee conseil bi ñu lay may diggante bi nga amee doom ak bi ngay reprendre sa liggéey du yàgg bàyyi ab liir ci kër ga dénkaane ko am na ñoo xam seen ween def ko ci biteel bàyyi fa lu ne ñu def ko door a bëgg xëy liggéey te itam boo seere wut sa sa sa sa sa ceinture dëgg hmm. da nga retraité doo am hmm. Hmm? daw bi yëpp boo muy tuddoo daw bi yëpp boo seere wut sa ceinture dëgg am ku la encadré nga déggal ko tem naan la bàyyil sañse bi boo moytul am dara ndax li ngay am par weer xew-xew yi xew ci sa bokk yi sa yaay bëgg nga def bañ xam yaay kan sa maam bëgg nga def ñu bañ xam yaay kan ak euh, ñoo ñoo ñoom seen yooyu weer du dee ba nga denc cinq cinq mille waaw loolu mën nga cee liggéey ba xëy retraité doo yor dara waaw moo tax loolu lu am am solo la ci liggéeyu jigéen mooy nit ku ko gérer yëf yi encadré ko su ko amul du dem ndax sunum penc ni ko Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si daan waxee euh, dañu am benn affaire mu yox santaas kuñ ko gàll koo mën a doon boo moytul nga gestu leen waaw ca kaw ba ca suuf wa shukran ci laaj ba solo bi seen Mbacke. Imali. ok jërëjëf sëñ <laughs> jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf oustaz ci euh, lu am solo la wax oustaz euh, jigéen ñi ci li ñu bëggee seen bopp ak ni ñu bëggee seen yaram ak li ñu li ñuy tere seen seen jëmm yi. Mhm. Euh, li mu leen jaral xam naa du ñàkk li nga wax nii dafa di dëgg ndax pour ñu retraité mën a denc dara. Mhm. kooku problème lay doon. waaw mais laaj bi ma ci bëgg a toftal mooy léegi nag ban importance la kilifteef am ndax bu fekkee ne yëpp dañu ko teg ci am-am bi. Mhm. wala ñu tekk ci rek man mënu ko góor gi mbaar woog doo am sa bopp doo retrouver sa baat sa kër te yàlla ni mu bëggee kilifteef ak ni mu ni mu ci soññe ci nit ñi ñuy am kilifteef mhm. léegi kon ban ban njëriñ la kilifteef amati ci kër euh, wàññiku na de wala xaw naa wàññeeku xaw ma nag jamono dem ba indi ñu ñu xamut ni ko suñ mbàkkee waxee léegi mhm. dafa am yoo xam ne ñun du suñuy aada dañ ko jëggaani wala dafa ruus duggunu te yëgunu ko ñun suñu aada mooy ngay denc jigéen yërëm ko jigéen di sëy ak jëkkër bëgg ko yërëm ko sunu borom ne na loxo bi di dem wa maan anfaqu su ko defee loolooy sàmm yërmande ji mooy sàmm yërmande jafe su amul nag kilifteef day tàmbilee wàññeeku ndax war a def défaut day tax ki nga war a ki nga war a defal ne la lu tax defoo te lu tax défaut dinaay wax ni jigéen ñi ëpp ci ñoom ñoo raw inspecteur Derrick <laughs> mbaa mhm, waaw ci wàll waaw ci wàllu enquête mhm. ci wàllu den wax jot bu dellusee bu ñu la ko indilaatee nga gis ko mhm. soo deful ci kër gi benn bis lañ lay wax ni waaw waaye yow dama la woon nga jëndal ma ñaari bale mu ne dama ko fàtte ñu denc dama ko fàtte jooju mhm. waaw ko fàtte jooju ba jë jënd loola ab gaas nga ne dama ko fàtte léegi ñu daan leen nag yow nii rek ngay def mhm. waaw amul ah mu ngoog léegi bu ñu la ci tegal ñaari baat ak ñett bu ko defee nga daal di tuufee wala nga nangam nangam wala nga yëngatu mhm. waaye daal li doon yor kàddu ci kër gi sunu borom daf ko bëgg ba tax mu ne euh, euh, nu ko waxati walahunna mislu lazi alayhinna bil maaruf mhm. wali rijaali alayhinna daraja mhm. daraja muy genn benn baat boobu muy daraja loolu muy kàddu gu mujj gi kilif téef gi ci kër gi ak nooy def yow ba nekk kilifa ci kër gi yilifaa kër gi yëpp naan def leen ak bàyyi leen loolu oustaz Alioune lu am solo la ci pénc bi lu amal solo kii sëy la amal solo doom yi amal solo ku góor ki nga xam ne mooy yoon sëy bi muy kilifteef kilifteef googu nag dañ koy sàmm di ko aar di ko garde di ko ñog ñogal butul ko ay garde fu lu ko mooy day wàññi ndànk di dem ca ku jigéen ka di wàññi ndànk dem ca moom ba mu jàgg léegi boo muy tuut li yàlla xam doy na Mhm. te luy wàññi ko mën naa dem ba jeex. Mhm. waaw. Mhm. ba sukkuran ci sa laaj bu am solo bi. jërëjëf sukkuran tamit ci tontu waaw moom kay Oustaz xam naa ne am na solo ndax boo seetloo Oustaz suñu temu tey bi am solo gi dafa doon loo xam ne Oustaz lu ñu dund la ay réalité la yu ñu dund ci penc mi. Eh, dafa mel ne bu ñu doon xaaj jigéen ñi ñaari xaaj lañ booy xool Oustaz am na koo xam ne bu nee damay liggéey ñëpp dañ naan est-ce que kii kat war naa mën a liggéey ndax léeg liggéey ba muy liggéey jar na ko société bi soxla na ko jàng na ko man na ko war na koo defi léeg-léeg am ku ne ci wetam koo xam ne moom amul njàng moomu amul liggéey bu mel noonu waaye déggum riirandoom ma liggéey mi rek dana ko dugal ci muy liggéey liggéey yoo xam ne yu doyadil la yu mën a doyadil jigéen la yu mën a tax ñu yàpp ko la ndax phénomène u mi laa wujjee loolu it xanaa waaw waaw moom kay <laughs> dafa am sama wujj wi day liggéey ma ni damay liggéey te yow yaa ngi mën a yem waaw <laughs> wax ci dafa am koo xam ne kii bu lool bu ko liggéeyee hmm. ba metul yaram daw ca hmm, hmm. danaa koy faral di wax kenn sama soxna yi hmm. liggéey sàngam hmm. liggéey bi mbirum njaay la hmm. waaye njaay ma daa ñàkk solo njaay ma daa ñàkk solo ndax uh, ci njaay yi bëgguma tudd mennum njaay waaye am na njaay ma mën ngaa jaaya jaaya jaay ba l'an deux mille quarante trois donc am na kook suñ mbàkke bu xëyee ne day liggéey moom bu demee ya def ëpp naa ñàkk def te mën na faa féete waaye bu ko nogoy déggee jóg daa ne ma damay wut liggéey nga ne ko loo bëgg mu ne lu ma am baax na kooku daaru na toog ndax amul métier soo ko dee seetlu lu ma am baax na moom foo ko dégg Oustaz Alioune ci koy wut liggéey moom wutul liggéey wutul métier liggéey liggéey lay wut waaw waaye su ñëwoon ne damaa bëgg liggéey ñu ne ko loo man waaw loo man ji daa war di ñëw toujours très mhm. mu génn diplôme sage-femme mhm. ah wala mu génne diplôme boo xam ne bi dafa def wàllu mhm. management wala commerce la def wala nangam kooka moom li muy wut mooy moom am na métier moo tax moo tax moo tax tubaab bi naan la bindal sa CV voilà <laughs> nga def ca la nga man ak la ngay nangam ak la la nga man lépp nga def ko ca ak yi kàddu yi mën a wax ñoom seen yooyu léegi loolu am na ci solo waaye kii wax na ne lu ma am baax na kooku moom daanaka. loolu nag oustaz bari na ci pénc bi. waaw loolu am baax lu ngeen ma jox baax na. waaw man kay bañu ma dara fi mu ne. bañu ma dara loolu moom. bari na ci ñiy génne réew mi dem bitim réew loolu ñu mel noonu. waaw ñoo fay ñooy sonn duñu waajal loolu duñu waajal yóbbaale métier. nekk nii. Mm. foo wàcc ci si liggéey. Mm. waaw métier moom. métier ma ngay jaay. maa la ko wax de. métier ma ngay jaay waaye boo demee ci kaw damay wut liggéey. Mm. lu ma am baax na. man ngaa sonn lool sonal say bokk sonal ñu ngi fi mhm. bàyyi. mais oustaz xam nga léegi wax nga ne ne góor ñu baree bari dañuy teg seen bët ci li seen jabar di am. tax mhm. sax nga nga waroon koo jox dara nan ko ah, yow fayee koo góo. xam nga boobaa yaa ngi ci teg bët waaye oustaz nag léegi. jigéen ñi itam ndax amu ci ñoo xam ne ñoom it am sa liggéey gën a seef sa jëkkër wala nga jàpp ne man daal fi mu ne waxatuma dara yor naa oto am naa doom ci sëy bi samay compte fees na moom daal bu ma yoree baax na bu ma yorut itam ma dem ak sama bopp tax nga xeeb ko amul ñoo xam ne seen liggéey man na leen yóbbu bañ xeeb seen borom kër. loola ku góor ki ñaare. Hmm. dafa am lu mu a incarné. oustaz bu ko delloo ci ku góor ki ah, kay ah, yow daal lépp kon ku góor ka la jëm. que moom lañ may. Ah. moo joxe may gu njëkk. moom lañ muur yët ko. waaye nag oustaz nag attention. parce que moom la ñu may moom la ñu jox nag waaye nag itam. loo incarné incarné ku jigéen tam war na am tam lu mu def ci boppam. Mhm. boo ko defal ci boppam bëgg laa xeebit du sotti. de oustaz Alioune. Mhm. da ngaa joxe xaalis ñu may la. Mhm. may la ci jàkk ji. muur yët la. gis nga soo doon am quinze mille francs. sa jabar di am deux millions par weer. sa quinze millions yi na yor kër gi. waaw léegi léegi oustaz baal ma dugguma la léegi quinze minutes da nga góorgóorlu def ko ci kër gi waaye ci penc mi oustaz gis nga boo defee njàngan mi non non même sax bu fekkee départ bi ëpp na loolu li oustaz bëgg a wax man am naa lu ma ci xaw a comprendre tuuti oustaz mooy waa ji na alaakulaali na mat rek na mat na mat lim doon moom incarné rolu kilifaam bañ a kii bañ a jublu dara loolu dong laa bëgg wax nag mais mais oustaz bu dajee jigéen joo xam ne moom itam jàpp na ne moom kilifa la maanaam li may am li may nangam li may nangam ba tax joxu ko jox ko benn wàccuwaay jigéen ñooñu oustaz doo leen wax wàccuwaay boobu. <laughs> ah waaw li nga leen wax sax doy na sëkk. ah <laughs> waaye wàccuwaay bi naa leen wax dara. bien sûr <laughs> oustaz fasoo a waaye xam nga sëñ Ba ci wàccuwaay bi oustaz. xaaral xaaral oustaz maa ngi la dama ñëw ci wàccuwaay bi. Mm-hmm. mooy gis nga loolu jëkkër ji yor. Mm-hmm. bu ci boolee caractère gi mu war a yor. milliardu ndaw si du tax mu a mu mu jog ci koom. mais nag su fekkee suñu penc mi kii liggéey ki liggéey day am faiblesse. Hmm. waaw Oustaz Ali. Hmm. da ngay dugg ci kër yi fi ne gis kër goo xam ne gi mbóoj day liggéey. Hmm. grand frère rek ci kër gi. ñu teg loxo mbóoj mi nekk ko yow da nga fubal première division. ndeysaan fonk ko lool fonk ko lool man foofu laay waxe hmm. ok man comme ndaw si nga xam ne dafa am na hmm. moom war naa xam nañ ko yilif. waaye nag nit du ñëw ne yilif ma nii rek dafa am caractère booy joxe. Hmm. xam nga man incarné ko. comprendre naa sax li nga bëgg a loolu rek bëgg a wax am na lu ma comprendre mais si li ma xalaat nii. Euh, yow la ñu may. yaa joxe sama gu njëkk yaay kilifa gi. nga dem ba sa dépense boo comme ni oustaz joxe comme misaal. quinze mille mooy sa sa capacité. te ndaw si ay toccal mi kaayam rek. ay nangam ëpp na ëpp na vingt cinq mille fomputi daal yaa ngi dégg te yow te te quinze mille fompul ay daalam ngeen bokk nekk na kooku su amul dëgg-dëgg amul ay kilifa yu mu jox ciir wala boo doonul doonul ak sëy fa mu fa mu jógee wala boog xamul lan mooy valeuru kilifa boo moytuwul rek seen digg waaw Oustaz Alioune hmm. séeri bii nga sol bi nga koy jënd hmm. ab xaftaan la woon très <laughs> bien. yaa ko def xaftaan de <laughs> oustaz moom vraiment. <laughs> non déedéet. xam nga daa fas yéene wax jigéen ñi dara. non façon bi dañ koy jàngat. waaw dañ koy jàngat. dañ koy jàngat. Mm-hmm. ñu dugg ci kër. Mm-hmm. am ku moom kër. Mm-hmm. ñu koy wax boroom kër. mu yilif kër. léegi borom kër gi bu sëyee nag. nga xamante ne tey man mii su boobaa man mii nga xam ne tey <laughs> oustaz maa ngi maa ngi <laughs> maa ngi def sama wëlis booba léegi di wut fu ma sëyi. su boobaa nag balaa am ñetti weer dana fay. <laughs> il faut nga yab ma nag. noppi da ngay def moom. gis nga góor ma il faut nga yab ma te bañ maa découragé. góor gu sëyi da nga fay. waaw déet du am baat sax. léegi nag soo ko seetloo mooy fi ma doon joxoñ fépp mooy foofu sëñ Ba. mais léegi oustaz bu fekkee wërsëg tolloowut te yàlla boole ñaar ñuy ànd kay ku jigéen ki gën koo jekku àdduna yooyu war naa mën a am kër fat ko ci kër gi ba noppi raamaat ci ginnaawam jox ko baatu kilifteef gi ah. sax ali sax <laughs> nga ku sëy di góor hmm. xam ne daa am ñu hmm. boo ci teggee benn hmm. da nga da nga da maanaam boo fanaanoon ci kër tey ah, ci kër tey sax ali xëyee doo joxe dépense ah, war nga faa bàyyi dara dara bu la xale yi tàggoo di jàngi doo leen jox paas. yow mi sëy si. ah, ah <laughs> la ko laaj de. donc sa loxo war na dugg ci kër gi bañ xam ko. kon su ma la déggee oustaz góor gi nga xam ne dafa yor soxna su am xaalis. waaw moom waaw. buñ ko jëmee ci ku sax. Mhm. ku sëy sax mën na nekk takkoo. Mhm. wala mu nekk loo xamante ne du kii. Mhm. kooku yàlla fay war su du demee noonu. ndax li nga fay nekk lu bari. peut être da ngay dem ak mais nga nekk si biir kër laa wax. am na ko ne ci biir këram. fayal nit. di ko jàppale mu étudiant ba muy jàng ba am dara xëy xëy football la. Hmm. déet xam nga léegi suñ penc mooy def. Hmm. soo xëyee xëy defee ñu naan daf koo football. Hmm. Ah waaw <laughs> euh, waaw léegi oustaz bu fekkente ne man euh, tey jii damaa yor soxna ñun ñaar bokk nekk mhm. xëy na bi ma koy takk dañuy door a tàmbalee liggéey ci appartement lañ man a nekk ñu bokk ci nekk di nab nabi mhm. dem ba mu yàgg salaire am ëpp sama bos mhm. wala mu defi pexeem ci liggéeyukaayam ñu jox ko kër ñu ne ah nañu ànd jóge ci appartement bi dem tuxu ci kër ga xam nga ko dégg du ne kii daa sëy yi ndax loolu doyee di wut maanaam dañoo àndoon rek wërsëg tolloo wut ñu ànd ñëw ñu ñëw ba ci ma nanguloon man jamono jamay ñot ñot yi tey maa dañ maa ëpp maqaama tax mhm. léegi nangulatuñ ma loolu mhm. oustaz jigéenu kilifa laa bëgg nga maanaam nga jàngal ñu jigéenu kilifa nan lañ koy yore jigéen ju àdduna bi jàppee ne kilifa la jërëjëf toujours jigéenu kilifa Mbàkke mhm. da ngay dégg ñu ne ministre sàngam di way jëkkëram waaw am déet waaw man damay imaginer ñoom ñu ngi kii quoi waaw jëkkër ji dafa am caractère mu koy yore ak yoo xam ne ak yoo xam ne mooy moo ko yor. Mm-hmm. mooy li nga yor. Mm-hmm. bul ko xeeb. ni nga mel bul ko xeeb. Mm-hmm. li nga am bul ko yéem ci kër gi. ñu respecté la ormal la. bu loolu manqué bu ñu la bu dara leen la ndax jigéen ñëpp am na ñoo ñoog nogay yem. ñi mel ak daa am noo leen di yore. ñi ñi tane nogay daa am noo leen di yore. loo ko mooy rek doo dem tubaarkàlla. tubaarkàlla waaw jërëjëf kon demal dañu incha allah. beleen toxal seen ak déglu mbokk yi tubaarkàlla fañ jëm mën nañ faa ñàkk yàgg 9h bon jot ba te 47 minutes. jërëjëf ci ànd bi ak Sud FM seen rajo bi ñu xoolee seen montor 10 heures jot na ba teg juróom-ñetti simili fii ci studio bi Oustaz Alioune lan moo ci tegee. ginnaaw ba ñu gërëmee soxna Issa Dieng moom moom daañu dellusiwaat incha allah balaa booba nag Mbàkke ñu ñëw ci deuxième partie bi incha tamit wàllu auditeurs yi. wàllu auditeurs yi lay doon imaam yi ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew yëpp mën nañ cee bokk. ñi ci bokk ci bitim réew ni ñuy def. ñooy woote ci 33 841 22 33. waa biir réew mi. 828 88 628 98. 98 am na ku ne mi ngi nii. imaam yi dalal ko. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaaram na nga tudd ak maa ngi tudd Tukulóor Baye di wootee daka eh, yaa Tukulóor. waaw yaa waxti. hono eh, mbaɗɗa yaalan jam tan mbaɗɗon tan mbaɗe mawɗum key eyyi eh, golle men jooɗi fi bisimilla moon <laughs> na nayen def mbacke de gullolu aha kay dama ko wat kii rek daa fekk ma soxoon ab socc acca nañ ci dem yow kay non nañ dem rek ayca moo gën de man de <laughs> boo ko ñemee ñu dem ci man <laughs> maa ngi lay baax a baax am na ku bëgg a adhéré de nee na fekk yaa ngi boobu. man du ma président di. ah du yow la woon. koo doon kilifa gu mag gi mooy président. non koo président fal suffrage universel. kër gu mag kër gu mag mooy président <laughs> mooy suñu président <laughs> porte parole porte parole bële mooy suñu mooy suñu mooy suñu secrétaire général porte parole bële <laughs> ah, ay Pape Malick baax na <laughs> président de la république jiite ñu Pape Malick di secrétaire général tëgóor sëñ Abdou Mbacke di suñ trésorier donc ba ñuy maamam ba xam nga ñoom ay maamam lañu sama maam yooyu daal ñoo yor mouvement bi <laughs> déedéet man man daa rek communication rek lañu ma dénk communication rek rek rek ak <laughs> bismillah ajo jërëjëf jërëjëf euh, ngeen baal ma rek ci tooñ beeg guddal bi maa ngi doon suratul ahzab aaya mm-hmm. fanweer surtout ahzab voilà waaw aaya fanweer ak ñett way taqulu laa commencé li li lilladina an'ama allahu alayhi hmm. jërëjëf di nuyu nag bu baax sponsor te di la ñaanal ñi gën gis seen bopp na lopp ak ñoom madaara ki kii seen i bokk ñoom ñëpp yal na yàlla dafa leen jàmm ñu am gën a am gis-gis bu baax ci émission bi Mm. jërëjëf jërëjëf Tukulóor Baye tubarkallah sunu mbokk mu baax moom 88 628 98 98 33 841 22 33 nuyul kooku Mbacke. mbokk mi dafa bëgg a bokk asalaamualeykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. Sass Mbacke maa ngi lay nuyu di nuyu Sass Aliou Ngaye. Moustapha maa ngi lay fay nuyoo. di leen bu baax baax di rafet liggéey bi di leen félicité waat bu baax. jërëjëf jërëjëf. sama yaay nag dama dugg démb rek mu na ma lu tax waxoon sama numéro Sass. waaw Aliou Sall. wax ko kon. day seen sopp lool nag du leen bëgg lool soit du leen tardé su defee la kale moom rajo sax bari na ko du changé. Hmm, ndeysaan. ayca Moustapha Moustapha na naa la. am naa mu duggaat incha allah eh, ñu xaar keneen rek Moustapha Gana ci kanam nga duggaat incha allah asalaamaaleykum. waaleykum salaam Sall Aliou Mbaye. da béykat. Ndiago Mbengue baax. carte toone. de du noonu de. Ah, ceeb ko noonu de bul yàq sama itaan yi waaye euh, bu ñu metti li bul tax suñu bopp yi metti ñun ñu déggee euh, daal yi. ceeb ceeb ko cartonné mooy la. <laughs> day jéem di waaye bàyyi ko rek. man engrais laa dégg. jërëjëf jërëjëf Mbengue. Ah, waxtaan bi waxtaan am na solo trop. alhamdulilah. <laughs> alhamdulilah ñu lay siyaar baax. jërëjëf jërëjëf Mbengue. waa xam naa bëgg naa Aliou Sall ñoo ñu ci ñaari ay mujj ci Ankabut. ah ci Ankabut. Ankabut waaw ñaar ay mujj. d'accord d'accord. ak euh, bëgg naa mu dikkal ñu si wa maa xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun ba xam jinne ak nit mala kan moo njëkk àdduna daal laa bëgg mu ndi dikkal ñu ci. d'accord. jinne kaw suuf. dana ci ñëw léegi. mais ñu leen di caar waxtaan am na solo trop. jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñanga meng ñanga meng nekk foofu ci Rome ñu ngi koy nuyu Oustaz Alioune suñu xarit boobu. Mhm, di ko ndokkeel ay ca. 80 Adam ku nekk biir asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ euh, ñu ngi sant alhamdulilah. waaw ma man la Yatma Mbodj bu Njang Ba euh, Mbodj. baa <laughs> ngi maa ngi nuyu waa póotu yëpp. waaw waaw ñu ngi lay <laughs> tubarkàlla ak waa euh, dëkk yi nekk Potou yi diggante Potou ak Louga. naa ay kër mbaari ak yooyu yëpp foofu lañ nekk ci yoon woowu. waaw waaw waaw. <laughs> ndeysaan waaw ndeysaan na. lew na ndeysaan. jërëjëf jërëjëf jërëjëf bisimilah bisimilah. waaw li ma bëggoon laaj mooy. Mhm. waaw man damaa dégg benn waay ñuy wax rajo bi keroog mais moo wax ba noppi nii euh, li ma wax nag man dama euh, gisuma ci diine daal mais man maa ko seetal sama bopp. Mhm. waaw mais may laaj ba xam ne kon seetal sa bopp dafa am ak kan moo ko war a def. d'accord. waaw bi ci def tamit dafa am lu ma bëggoon wax rek mooy benn jamaïcain bu ma gis foofu benn vidéo Sénégal fii hmm. léegi kooku daal dafa mi ngi toog ay VM yor ko nii ba noppi yor benn ko ubbi. d'accord. bu fekkee am ngeen baax ngeen di wax ak autorité yi ñu mel noonu ñu bañ a dugg ci réew mi. d'accord. waaw parce que ñu bari gis nañ ko. waaw mu yor VM nii di toog yàmba yor benn kaamil di ko ubbi. Hmm. loolu ñaaw la ñu mel noonu ba ñu dugg ci réew mi. Mhm. waa kay jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Yatma Mbodj am na solo ci dugg boo am solo boobu Ima lii ñu jaajëfal koo xaar keneen ci ginnaawam 10 heures jot ba teg fukki simili juróom wala fukki simili ak ñett jëlal ko. salaamaaleykum. salaamaaleykum. Fadal. maaleykum salaam wa rahmatulah. yàlla noo tudd fa woote. waaw sëñ Ibou Cissé la jëlee Ressé la. sëñ Ibou Cissé. sëñ Modou Cissé jëleeru si la. sëñ Modou Cissé. Cissé na nga def waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax. loo seex noonu mburu. di rafetlu jotaay bi bu baax allo Sass. loo seex mburu. déedéet ah. loolu kay bàyyi naa ko mbayeen yeeg si la si la yi. Hmm. <laughs> waaw. <laughs> Cissé. <laughs> waaw tey dama bëggoon Oustaz ñëwal ñu ci suuratu Rahman. Rahman. aaya un ba trois. Hmm. sama deuxième laaj day dem ci soratu buróoj aaya huit su ma juumul mi commencé ci allazina na mulku samawaati wal ardi allazi lahu allazi lahu lo hmm. lahu mulku samawaati wal ardi hmm. wallahu ala kulli shay'in sa'id jërëjëf ila axiri aaya hmm. Oustaz Mbacké ñu ngi leen di ñaanal ba baax nag jërëjëf nuyul ma waa jëleeru si la yëpp sama baay yëpp nuyul ma leen waaw danañ ko dégg ñu ngi fi de di bëgg mburu rek. <laughs> en yaay tudd loolu daal waaye ñoom ñu ci kaamil bi. waaw dama dama am sama soxna soo xam ne si nag Oustaz Mbacke da leen di fii ci ah. jëleeru si la man benn rek la ma yàlla waaye soxna soo si moom soxna si jëleeru si banaan sama soxna soo xam ne. maanaam day sama nit. da naan daa am soxna soo xam ne fii ci jëleeru si la. waaw kon daa am soxna soo xam ne. <laughs> da leen di rek tudd soxna Awa Sylla. <laughs> waaw kay jërëjëf nuyul ma ko. Sylla koo xam ci Awa Sylla da nga koo mën a moom bu baax. <laughs> jërëjëf. Eh, eh, daa ne dem mu dem ah, naa gis nii. ndeysaan sant si si bëgg moom ko sant si la sama soxna soxna jëlal ko. muy soxna Awa bu baax a baax. asalaamaaleykum. du ko defati de. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw yaaram. mbay noo def Doro. Eh, El Hadj Doro. ni ngeen def waaw Doro mbaa jàmm la woon. jàmm bu baax sax pourtant ma ma ma damay ju damay jéem a dugg mais du jàll. waaw léeg-léeg xaw a jàpp di ja di kii. voilà non mais non mais non mais sant yàlla bu baax sant yàlla ñu ngi teewee waxtaan bi yëpp. Mhm. xanaa mburu nga lekk nga sax da ngay nii. di nuyu Mbacke di nuyu Sall <laughs> ñu ngi lay fay bu baax ana maire bi baatane na. maire bi sama va mi ngi tane bu baax. alhamdulilah def naa message ngi tane bu baax. yàlla na ko yàlla yokk. Mm. amin amin amin biig rek maa ngi déglu ndeysaan sunu mbokk ndeysaan bi ñuy gërëm Pape Pape Ndiogo. Pape Ndiogo waaw Pape Ndiogo waaw. vraiment vraiment comme ni ko Oustaz waxee keroog rek daal ñu famille la quoi ñun ñii mm. auditeurs yëpp ay famille la benn mm-hmm. famille la mm-hmm. de kenn la di rafetlu di rafetlu waxtaanu Oustaz yi si suba. ndeysaan mbirum soxna buy liggéey. Mm. man dama ne comme ni ko Oustaz waxee rek gis nga gis nga. jabar ak eh, eh. sëriñ ak ku la jàngal ku la jàngal diine eh. boo ko ñëwee rek doo ko dimbal dëgg la billaahi parce que dama dama dama dafa may ay ay expérience yoo xamante ne mm-hmm. li ko oustaz jàngale rek loolu la quoi boo amee ñetti junni sax sa jabar di am juróomi million mm. yow na ñetti junni bi gérer kër dëgg la jàppeel sa ñetti junni yi fukki million yow jà jàppee ko ñaar fukki million ba. mi ngoog mi ngoog yow daal oseel rek doon kilifa fuuralal <laughs> ñetti ñu ni mënut lu bari waaye fuuralal rek. voilà jabar kenn du ko kenn du ko jërëjëf jërëjëf. kenn du ko fitna maa ngi rafetlu bu baax di nuyu Alassane di euh, oustaz Alassane ba ca ngi maa ñaan mi doon ñaanal sama yaay maa ngi koy gërëm bu baax di ko ñaanal. jërëjëf jërëjëf Dora mm, jërëjëf. di nuyu sama bu baax di nuyu sama bu di leen di nuyu waa Dakar yëpp di ñaan yàlla na yàlla def jàmm dëkk. Doro tubarkal imaam li jërëjëf Doro Sylla jërëjëf Doro Sylla France la Paris eh, tubarkallahu Mbàkke nuñ kooku mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam waaw alaaji na def waaw jël def yàdd alhamdulilah jali jali de. amul wax luñ ah, oto bi ma ko yaa oto bi. non fi ngay sori laa dëgg la. ah d' jali mu ma daan dégg di moo tax ma yaakaar ne yow la sax. Ah, ah, jali moom la nag. <laughs> ah d' accord kon baax na. <laughs> bisimilah <laughs> ah, ma wa man yatawakkaltu ala wa huwa hasbuhu. fa huwa hasbuhu. waaw. d' accord beneen bi. Hmm. nekk fii. Hmm. dañuy lekk ay. ci yoo xam ne yàpp yoo xamante ni mm-hmm. machine yee ko rendi mm-hmm. des fois boo ko dee lekk naara dañ lay wax ne la dafa xaraam mm-hmm. waaw mu bëggoon tamit oustaz ñëwal ma ak ay leeral incha allah incha allah waaw ngi bu yoo di jaare bu wér oustaz Alioune Mbaye ak oustaz Alioune Sall ak yéen ñëpp incha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf nuyu naa leen ñoom ñëpp te di leen siyaare jaliyaat dañu noonu imaam lii di daaneel Abdou Gëm ginnaaw bi mu indee ay laajam xanaa nga yërëndu ba xam am na kuy ñëwam déet. waaw waaw su xoolee ba xam ndax am na ku ñëwam déet asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa euh, kooku Baye Gana. Julde Julde. Julde Taal. Julde waaw Taal. waaw kay na ngeen jàmm rek taal. taal nu Mbacke daal bu baax naka yite yi. alhamdulilah. ñu <laughs> di ñaanal tawfiix. jàmm rek kay. ak gudd fan. yal nañu ko yàlla boole. di leen ko ñaanal yéen ñëpp. amiin amiin yëpp amiin amiin yaa rabbal aalamiin. jaay si naa Mouhamed. ndeysaan amiin. tey nag benn muy mhm. Nuur. aaya 30. waaw. jërëjëf. ñu leen sant bu baax di gërëm nag. jërëjëf. bu ñuy soppee alkitaab yëpp nag. jërëjëf. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu sëñ Julde Taal. suratu Nur maa ngi nuyu mère Adama Ndiaye ca ak soxna euh, Seynabou Ndiaye sama mère yooyu ci ñoom asalaamaaleykum. waaleykum euh, maa ngi nuyu per Birahim. <laughs> maa ngi koy fay ak père xuma nan Sarr moom itam ne woon na nekkoon na tiikër de xuma waalo xuma moom daal am mbër la woon moom maa ngi koy nuyu. <laughs> ndeysaan jërëjëf. yéen jàmm. alhamdulilah bisimilah. ñu ngi jërëjëf Birahim. ah daa ngi dem nga ba jege waaw moom day doy na waar màkk Biraghi. maa ngi leen di nuyu bu baax baax. jëleeru si la kër Mbaari Diagne waaw nuyu naa leen kon àgg naa léegi. waaw àgg nga ngi ci penc ma. <laughs> waaw yaa <laughs> ah, ak ñaata soble. waaw soo leen après naa si ñëw. <laughs> d' accord bisimilah. <laughs> am sóotu xaafiri mu ñëw mu. xaafiri waaw. yàlla di wax qaalu rabbana amatana snatayni wa axyaytana snatayni faxtarafna bi zunubina fa halim ila xuruji min sabil. Mhm, ndeysaan. waaw mu ñëw. d' ñi nga xam ne moom dem juma. Mhm. imaam di xutba ñu nekk seen whatsapp yeeg ak di waxtaan yooyu laa bëggoon imaam seen ñu see yee daal. <laughs> jërëjëf whatsapp maa ngi ziar waa la ñuy déglu. jërëjëf jërëjëf Imam Ali ñu jaajëfal baax a baax mbokk moomu di sëñ Ibrahima Ndiaye suñu xarit la nekk foofu ci marché Tilène ñu ngi koy nuyu ak waa marché Tilène yëpp. Imam Ali. tubaarkalla jërëjëf di nuyu sama CD sama jigéen ñu baax ñu ak waa Trésor madame Diallo ñoom ñëpp gën leen gis te nam ma leen. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatullah. Eh, yaaram na nga tudd fay wootee. may ñaay Kër Massar. def. sant bu wér wér bisimilah Ndiaye. sama xarit moom tey dama lay sànni xeer. bisimilah bisimilah. waaw sama xarit moom nee <laughs> ci ah, génn. waaw ah, kon baax la. bëgg gu ma cee génn Ndiaye. waaw ah, doo ngay xeeri. waaw. kon baax na. doora borom xel. bisimilah jërëjëf. yàlla xanaa seen association amul transparence. déet xaaral oustaz. <laughs> tontu bi du léegi. Hmm. waa dañ seetaan rek. ayca bisimilah bisimilah bisimilah bisimilah. <laughs> Euh, tey boobu dama amoon ñaar nit yu ma yóbbante woon laaj. bu hmm. njëkk dafa ne. <laughs> waaw moom fi mu dëkk. Hmm. ñu dul jullit ñoo fay dëkk. léegi 31 décembre day bañ doomam yi xaaraani ji. léegi da leen di rayal pour togg pour jox ay doomam. am ku ko wax ni li ngay def nii dañ cee am bàkkaar. léegi mu doon laaj oustaz ba xam moom da cee am bàkkaar wala li mu def noonu la. d'accord waaw keneen ki nag dafa ne. Mhm. moom dafa nekk ak soxnaam. Mhm. moom bu affaire yi méttee rek soxna si da indil problème quoi. Mhm. mais di neex soxna si du def dara mais daal bu affaire yi méttee da koy sulil ay mbóotam ak. metti maanaam. waaw maanaam bu dëkk bi dëgëree ci moom daal. bu yorul xaalis daal. waaw bu yorul. d'accord. soxna si daal du ko may jàmm quoi da koy indil ay problème di sulli ay mbóotam lu nit warul xam ci moom mu koy wax. daa bari lu muy nëbbu. waaw waaw déedéet maanaam hmm. bu a xase. waay. ah xaw naa diis loolu <laughs> kay yaa xaw déet gënu ma laa xam dara yow kay say engagement rek <laughs> jërëjëf. <laughs> baax na laaj bi leer na mbay jërëjëf. man mi bëgg naa ci sa dugg boobu te di la ndokkeel di xaar keneen ci ginnaawam ci 88 628 98 98. waaleykum salaam wa rahmatullah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Mbaye Sylla Ngom. déedéet Samb. ah waaw kay ah moom du ma ko tudduk nag mag mu toll ne man. <laughs> namm leen ñu ngi leen di ziar. jërëjëf. Euh, bi passé am na ko fi doon laaj sama numéro. waaw ne woon naa nga jox ma ko sama téléphone ma jox ko ko. bu soobee yàlla dinaa la ko envoyé sa WhatsApp bu ma paree. nay ca. daa fekk nag loo ma ar tardé woon émission bi. Mhm. waaye gaa yu bari wax nañ ma ko. ndeysaan. waaw bu bu soobee yàlla dinaa la ko am bàyyi moo pare. d'accord. di di rafetlu liggéey bi bu baax a baax. Baye Gana la Baye Gana mu ko doon di leen di leen jottali nuyoo Baye Darou Diop ca Kër Massar. na mooy Baye. Eh, eh, waaw waaw waaw. <laughs> Mm-hmm. ak xam naa bu ko laajoon Serigne Diop bi eh, ko ci numéro Baye Darou waaw waaw. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> góor a yaa ngi wala wala ba mu far dagg. jërëjëf ndokkeel nañ la baax a baax loolu moom baax na boo ma ko yónnee danaa ko yónnee bàyyi gànn après nag ñu wax ci li ñëpp bokk jëlal ko. allo. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu kite baax. na non doo doo soxna Ramatulaay Ndiaye. soxna ah, dafa am laaj bu laaj yu ma bëggoon laaj bu bëri. d' jërëjëf Ndiaye bisimilah mi léegi man dama yar ay xaj sama kër gi jàkkaarloog sama kër parce que dama fa dugal ay xar. léegi nag xaj yi man bu ma leen di may lekk léeg-léeg dañ may laal. Mhm. dañ may wax ne da ngay raxasoo ñaari ndox. Mhm. ak bool yi bu ko laalee ñaari ndox. Mhm. may laaj lu mu ci doon. d'accord léegi beneen bi mooy man dama bëggoon a umra. léegi nag far ñu ne ma yow comme nga sa yaay dafa teel a gaañ li ngay umra ajali ko moo gën may laaj ci gën a doon farat d'accord beneen bi mooy léegi su may naafi la su ma juumee ndax dama koy defar kon ni ñuy defaree julli wala nan lay demee mhm. léegi man sama jëkkër dafa gaañu barki yàlla bari bu fekkee ne góor newul ci sama xel mhm. mun naa ko muñ mhm. soixante quatre ans laa am ndax sañ naa toog bañ a téye sëy wala sëy bi farata la ci man jërë ngeen jëf maa ngi gërëm ñëpp. Mm-hmm. di Saal Saal. Mm-hmm. yow mi wax fajar it euh, six cinq heures trente. <laughs> Mor Khoudia. <laughs> maa ngi lay déglu bu baax. jërëjëf. <laughs> waaye xam nga lu ma gën a neex ci seen boobu. Mm. boo paree balaa ngay kii. Mm. balaa ngay jeexal sama jëkkër. Mm. dafa bëggoon musique boobu ngay teg avant ngay pare. avant Oustaz Sall di dugg si. d' accord. asbinallah waaw.

maa ngi lay ziar bu baax. wallaahi ndeysaan naka waa bi. su ma déggee sant yu neex yooyu ni may kontaane. daf may sawarloo daal vitamine C la. waaw a baax. <laughs> jërëjëf. waaw di rafetlu émission bi waaw amoon ay laaj rek yu ñu indi woon. gaaw ci laaj gaaw ci laaj waaw sóoratu Nuur. waaw aaya onze lawlaa iz sana'tumuuhu sanna al-mu'minuuna wal mu'minaat. wallaahi wallaahi. ak aaya douze. Mhm. ba buñ mënee jaar ba ci treize mu gën a baax. ndeysaan. waaw su ko defee mu indi dikkal ma tamit ci diggante Xodar ak Moussa alayhi salaam. Mm-hmm. waaw di rafetlu émission bi bu baax a baax. jërëjëf baax na jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Seexuna Sylla Maxtaar ñu ngi koy nuyu baax tey bëgg ci moom. ci duggam bu am solo boobu ñetti minutes moo tee ñu yëkkati jotaay bi Oustaz Alioune. tabarakallah di xaar ngeen ñu eggale seen yi ak seen àggale seen yéen laaj incha allah salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yaaram na nga tudd fee woote. waaw ñu ngi tudd Oustaz Alioune Fall di woote Thiaroye sur Mer. yaa ngi tudd. Ajuma Fall. Ajuma Ibrahima Ibrahima. Ibrahima waaw di wote Thiaré Géna. Mm-hmm. Ibou. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. ñu ngi lay fay waaw ñun ñoom laaj bi quoi dama gën a leer jikko Serigne Cheikh rek tuuti. ndeysaan. incha allah taala loolu lañ doon soxla. tey. ok jërë ngeen jëf waay. jërëjëf. jërëjëf Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi koy nuyu seex Cheikh du Makhtar Ka mi ngi ànd ak ñun jotaay bi euh, docteur docteur Anna Dia mi ngi ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu baax a baax di ko siyaare ayca tabarakallahu jërëjëf am na ko ne ci biir asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah yaaram na nga tudd fay woote Mor li New xanaa du Mor li mooma you feel fine Mor <laughs> waaye nuyu oustaz bu baax di nuyu. waaye yow Mor waaye Mor waxuma nga jëm fu looy fu looy njuuy maa ngi lay làkk angal ngay nuyu oustaz. Mor Mor danaa sagal. waaw yow demal fee eh, yaa war a nekk ko ci laaj yaa war a nekk ku nekk ci émission mujj bi tey incha allah. ah est-ce que. ayca bisimilah bu eh, nuyu baax di laaj oustaz comme ci seen eh, li ngeen commencé woon noonu ci soxna yi ak borom kër yi. comme ñun ñi nekk fii bu la fekkee da nga fee yor soxna nga xam ne léeg-léeg moo lay njëkk a xëy yaa koy njëkk a wàcc li ngeen dese kër gi du bari ndax euh, li la war comme li muy wax nga xam ne lépp yaa ko war a def wala mën ngeen koy séddoo ngeen di moom muy def lii ngay def lii ndax loolu lislaam dana ko nangu ndax comme fii kër gi du maye li war a def Sénégal nga xam ne li mu la war a defal ak li ngeen war di gisee ak li ko war ci kër gi lépp du ko def ndax mënu ko du ko def moo lay a génn ci kër gi balaa ñëwaat ci kër gi yow da nga wàcc léeg-léeg ba togg te moom du wàcc ndax li la war toujours daf lay war wala am na leneen ko lislaam am na am na solo Mor leer na jërëjëf merci Mor jërëjëf jërëjëf Mor lii kon nag Mbacke ko mooy nekk sunu auditeur bu mujj ñu bàyyi oustaz nga dem dañu incha allah incha allah bu leen toxal si nag déglu dix heures moo jot bi teg fanweeri simili suñu partenaires yi la ñu daal di indi ñu ànd ak ñun tabarakallahu euh, introduirel ñu ñetteelu xaaj bi 35 oustaz Aline kon lan moo ci tege doole laa sant yooyu si bopp doole sant sunu sponsor yi ñi nga xam ne ci jàpp ñun ñëpp tabaarakalla Mbàkke ngay defal leen ñaan. incha allah suñu Aliou Lo. Mhm. tabaarakalla. borom loobu la bu jaar a ca gaz ba. waaw ren soo ma daar mi ngi ci. Mhm. Noora mi ngi ci ak mhm. seen karaw kër Xaadim. est-ce que. ak ñi bëgg a ñëw. macha allah. jërëjëf ñaanal leen bu baax rek. yàlla yokk leen ndam. te yokk chiffre d'affaires yi. te boulangerie boobu ñuy wax ñu nañ ko fay def. waaw <laughs> yow Mbacke dana la arrangé lool. boulangerie bi keroog ba ma waxee ne ñoom xam naa def nañ boulang def nañ essence station waaye boulangerie lañ ciy teg <laughs> Aliou woon woo ma ne ma gars yi daal boole nañ ma ak yow léegi nag maa ngi lay wër waaye daa mel ni gis naa foofu tuuti ciment bu jógee dimbali ma rek boobu fi def boulangerie dégg <laughs> loo bëgg ci pain rek loo mën nañ la ko indil. waaye boulangerie bu ëpp naa waaw ay tappalappa ak fagadaaga ak yëpp mën nañ la ko indil. alhamdulilah. ñu ñaanal ko a baax jaaral sponsor barke ñoom ñëpp képp ku sponsor bi yàlla yokk ko barke waaw tabarakallah sama jigéen boobu ci pën si itam soxna si la moom te ay sa ñëwoon fi bis di ko wax mm-hmm. moom it ñu koy ñaanal baax a baax moo yor tàngal yi danañu del si danañu del si incha allah bu weer bi duggee ba xawal balaa sori incha allah ndax yàlla imaam sa mbokkum daara mi imaam Moustapha Niang mooy directeur bi waaw mu ngi lay nuyu baax noo ngi koy fay nuyoo suñu jaati suñ suñu jaati <laughs> yi la bokk. lay ndeysaan eh, tubaarkal ak sax jigéen ba léegi si ngisali ak suñ mbokk mi la xaaj Mansour Diop nekk ci Zik eh, FM. Ah, ak eh, Ahmed. Mm-hmm. ñoom tam ci yëf yi lañ bokk. waaw dañoo ànd samay kii lañ samay samay xale lañ ñu jàmbaare. tubaarkal <laughs> <laughs> man sama sama booy la. ndeysaan. Ah. Mm-hmm. jërëjëf bu baax mbokk yi ñu jaag serveur cant rek ak ñaanal leen lañ leen war defal. waaw jàpp nañ bu baax a baax a baax. dëgg la dëgg la i daa nga wa daawoon nga wax ne émission boobu amul sponsor amul téléphone. Mhm. du am xorom. dëgg la <laughs> du ko am mukk kon nag jërëjëf. nu ñëw nag kon ci euh, laay maa mbokk yi nga xam te ñoo jëkk a laaj. Mhm. suñu mbokk mu baax mii di suñu wëlëre sëñ Basiiru Baay. Mhm. maanaam Basiiru Ba di ta euh, Baay. moo jëkk jaar ci buum gi. Mbàkke yaakaar naa moom mi ngi wax ci suratul Ahzab mhm. ay 33 mhm. ay 33 ay 33 ñu mhm. ngi tolloog fii suñu borom subhaanahu wa taala di wax ni euh, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrajal jaahiliyatil uulaa waqimna salaata wa atina zakaata wa atina allah wa rasul innama yuridu llah yusfa ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathiira bismillahi rahmaani rahim subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimul hakim suratul ahzab mooy saar bi ñu tuddee les coalisés maanaam ña joxante woon loxo bëgg a fay lislaam ci benn bés xare boobu moo tudd ahzab suñu borom def ci saar bi nag attaque bu ñu attaqué yonent bi rek def na ko ci biir mu toll na ci attaque médiatique yi nga xam ne média yi ñooy attaqué yonent bi yàlla bëgg na garder soxnaam yi dafa leen ay garde fou ba ba attaque yi ñëwee du dal ci seen kaw day saan kon manipulation yi fu ne lay jógee non mbàkke leneen la guerre média nangam lépp rek suñu borom xool leen wax leen dee leen solo nii ndax attaque yaa ngi ñëw te ngeen yëg ne bokku leen ak jigéen ñi am na lu jigéen ñi sañ yéen sañu leen ko ndax Muhammad moo leen di denc alayhi yaa ngi ñëw yaa nisaa nabi lastunna ka ahadin min an-nisaa bokk leen ak jënn jigéen waaja leen attaque yi foofu nag la wax laa ji ci tënk di mbokk mi laaj su ngeen bañee attaqué dal leen waqar na fi bu yottu ko na toog leen seen kër bu kenn ci yéen rooteeti mbaa muy dem marché mbaa muy dem ab dëj baab rob yéen ñi yonent bi den ci yéen ñëpp toog leen seen kër muy benn wala tabarraj na tabarrujal jaahiliyatul ula bu leen jaayu hmm? seddu ngeen ba noppi bu leen jaayoo ni ceddo yiy jaaye ndax yéen du ngeen di ceddo seddu ngeen ba noppi waaqim na salaa bu nit ñi nekkee ca ndagar wala yaag taas ya soppi leen ko yéen ay ràkka wa aatina zaka tey joxe asaka ku ci am lu mën a génn asaka joxeel ku ko amul loo am dee ca doom pi joxe isan wa atina laaha déggal leen yàlla wa rasulahu akub yonentam nga ne ah, waaw ñii dinañ xanaa pini boog mu ne déedéet innama yuridu llahu li yusuba ankum rijza ahlal bayt damaa bëgg bu attaque yi ñëwee seet wecc wa yutahhirukum tathira ma raggal leen ba ngeen set dox leen ñu dem incha allah su ko ren ci laajam bam sala bi hmm. kay xam ni moom <coughs> mooy ñu yeexantu. xaar ma taxaw fi tuuti. oustaz na solo mais oustaz wax xaar na fii bu yooti kunne ji. xam ne mooy toog leen ci kër yi. Hmm. daa mel ne bu ko indee ci suñ thème bi ñu doon waxtaanee oustaz euh, Mbaye ndax du jigéen ñëpp kon lañ lañ wax wala soxna yonent bi rek lañ wax ne leen. bu leen toog leen seen kër xewoon na te jigéen ñaa nga doon dem marché kër duggee ko def yëf. Mhm. ñoom ñun lastanoo ko ahadin ministère rek yéen moom toog leen seen kër. ñu ko kon soxna yonent bi amuñu woon sañ-sañu dem bureau ñoom ak liggéey. de de ah, sëñ Mbàkke. Hmm. suñu nee Aïcha. Hmm. néeg bi mu dëkkoon. Hmm. dañ faa denc yonent bi. te sañu te toxu. moo xabar bi ñu bokk benn néeg. waaw xanaa kër ga daa amuti néeg. <laughs> loolu métti na di sëñu de neel benn waaw papaam génn àdduna ñu rob ko fa sëñu tutux Aïcha ak ñaari xabru ci benn ci benn néeg bi keroog bi Omar ibn Khattab biñ ko jamee mu mu mu tiit ci boppam mu yónnee ca neleen ko xam naa néeg ba juróomi xabru xaju fa ak juróom benn waaye lu gàtt-gàtt ñett xaj na fa te déggoon naa muy laaj benn ba nee leen ko teem ma koo may ma tëddandoog ñoom suñu Aysa dégg ko ne ko may naa la ko ñu fa ah, Omar suñu sa tuxu wuti pexe ndeysaan noonu lañ tolloon ci dégg waxar na fi bu wétiku mais oustaz oustaz man dama man sax duma laaj <laughs> waaye léeg nga xaw a jox foo daal laaj du ñàkk mm-hmm. oustaz ci waxaar na fi buytu kunde bi nga wax. ndeysaan. Euh, est ce que boo ko indee dégg ba mu gën ñëw. Mhm. du képp kuy responsable sa njaboot war nañu def xar na. ku kuy responsable kilifa daa war a toog ci kër gi wala. Euh, déedéet lastu na ko as ni nisa la yàlla jiital. xusoosiya la. loolu moom soxna yonent bi rek ñoo ko moom. waaw hmm. parce que ñoom am jot ak bëgg soxlaag sa papa faatoog lépp ci bokk yam toog rek. Hmm. mais oustaz soxna ñeneen ñi nag ku gis lu am lu la yitteel. Hmm. da ngay jóg dox ko soxna Oustaz Mbaye wërtu jàpp ne moom moo soxna ji ci ci mbedd mi yëpp ñoo yem ndax ndax bu ñu bu doxalee noonu itam baa moom it du du àgg foofu su xam nga su boobaa du mën naa gàttu tànk waaye du jël waxar na hmm. xam nga ci ci yow bu sa soxna toogee seen kër seen bopp nga xam day toog rek abadan xam nga waxuñu waxuñu fa dafa yow dafa jëkk wax ni am na ay kii yu ñëw hmm. maanaam attaques yooyu di ñëw attaques yi boo boo jëlee boo jëlee max fa mu ci attaques yi ñëw nga sa soxna yow tey hmm. wax ko waxaar na su wétu ko soo ko defoon hmm. say bokk xas ko penc mi xas ko àdduna tukki léegi nag yëg ne soxna saas Aline Mbaye la aha kay loolu war na ko yëg war na yëg ne soxna kilifa la waaw léegi oustaz wala tabaruj na tabarujal jaahiliyatil uula léegi nag xam nga foofu itam dafa am leneen lu muy wax maanaam toog leen ci kër yi comme ni ko doon waxee bu leen di baraj baraj fu ne ngeen dugg fa comme wax yi ñoom ñëpp lañ koy tere tabarujal jaahiliya mooy ni caddoy jaayoo sañu leen ko yéen julli di léegi fii wax ji day daal di tàmbulee maanaam concerné jullit yi yëpp. waaye li ko njëkk wax ji day yem ci soxna yonent bi rek. bi mu ne lastu na kaax si mu ne nisaa. Hmm. lim ci teg nga xam ne mooy wax waqar na fi na su ne wala tabaraj na tabaru tabarujal jaahiliyyatil uulaa soxna yëpp dugg. waaqim na sala soxna yëpp dugg. waati na zakka soxna yëpp dugg waati laa war a solo soxna yëpp dugg. Hmm. man comprendre ma aaya ji daal lu tax ñoom ñu moom lii ñun ñu moom lii séparation boobu foofu. waaw loolu ma loolu ci xusoos yi alxaas ak alaam. Hmm. dafa am ci si lu ñu tuddee xaas mooy ñee ko moom. Hmm. dafa am aam mooy yéen ñëpp ko bokk. liñ bokk nun ñëpp suñ bàkk nun ñëpp ko bokk. li ñenn ñi moom dong nag ñoom dong ko moom. Mhm. waaw xusuus yi dafa am ci kër yonent bi. Mhm. ndax attaques yi su ñëwee day metti mhm. waaw tey. Euh, <laughs> Oustaz xam naa ne Oustaz Mbaye. Euh, li ko jiitu Oustaz aaya ji. muy wax naan euh, yaa ni nisaa nabi lastunna ka ahadin mina nisaa. xam nga wax na ko ñaari yoon. in na falaa tax taxdaxna bil xawl. waaw léegi maanaam di di nooyal sa kàddoog di lobb lobbal di sarme yooyu. ñoom rek la ko tere wala jigéen ñëpp la ko tere. xam nga jigéen ñi mën nañ ko wax mu jig leen. Mm-hmm. ñoom nag du leen jig mm. ndax yi ñoom ku leen xemme mbaa nga nob leen yàlla lakk la waaw <laughs> foo boo gën a garaaw waaw <laughs> jërëjëf des nag na mën na ba ñàgg jërëjëf loolu am na solo cest li mu bëggoon a gën a du oustaz dugal ma si rek mu doon ci lestu nag xadin bi ak mm-hmm. itam wala tabaraj te barajol jaahil ulee bi rek mm-hmm. euh, mu mu mel ni bu ñu doon indi ma mafum bi mm. euh, ki nga xam ne dafa di responsable oustaz Alioune Sall xam nga mos nañu gis boo fàttaliku ci at yee ci ginnaaw mos nañu génne benn jigéen ci benn xew ñu ni soxna su a ngi nii. Mhm. xam nga ba nit ñi ñëf def ci ay commentaires yu bare bare bare. Mhm. Eh, ci ci max fu mu laa wax nii mu nga xamante ne day jabaru ministre bi wala jabaru député bi wala responsable bi nga xamante ne nii tey dafa am responsabilité bu rëy rëy moom la ñu gën a gaaw a singali par rapport ak. waaw jërëjëf loolu kay commentaire yu am solo la maa fi muskila loolu kay am na solo lool. sukran <laughs> kon nag kon nag yi fi yaa ngi noonu ba Mbacke jàllal ci bi ci des. dafa mel ne bu ñu xoolee. <laughs> suñu ah, euh, nu mu tuddati gi. mën nañoo dem fële ca barab ba. Hmm. jëli la ko gaa yi di siiwalu te ñëwaat. te ñëwaat incha allah kon oustaz ñu bàyyi la nga dem te dellusiwaat incha allah. kon nag bu leen toxal seen ak déglu fañ jëm lu ñu fa yàgg. Sénégal rawatina mbokki Dakar ñu ngi ñogee gën leen xew-xew bu mag di bésu association sopp nabi cellule bu golf ci njiitu seen président Assane Diop mu Iran Ndaw mooy woote bés bu mag di conférence bu ñu jàpp nag incha allahu fukki fan ak ñeent ci weeru janvier 2018 di ko amalee nag ci esplanade bu jumaa bu parcelle Assainies unité 1 muy bés boo xam ne nag incha allahu Ibrahima Badiane di Iran Ndaw ak oustaz aline Sall ñoo fa yéene ñëw nag defal ko waxtaan wu am solo jaglal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés boobu bés bu màgg la ci ñun bés bu rëy la ci ñun muy bés boo xam ne bésu oustaz Alioune Sall la oustaz Alioune Mbaye la bésu Imam Seck bésu oustaz Mbacke Sylla la bésu jaamu yàlla yëpp la bésu borom xam-xam yi la ndax Assane Diop ñun ñëpp sunu xarit la sunu soppe la te bu amee bés bésam sunu bés la kon ñu ngi ñaan nag la 14 incha allahu taala ñun ñëpp ñu bokk wuy si ko te ñu jàppale ko ba yàlla defal ko ci ndam kon ñu ngi def appel di lancer appel bu baax a baax ki doon wax ak yéen nag mooy seen mbokk Irando Assane suma xarit la suma soppe la moo tax mu tuddee ma doom kon nag maa ngi ñaan nag euh, kuy sama soppe kuy suma xarit di soppe Alioune Sall di xaritam kon bala 14 suñu bokk fa daj incha allah. muy bés boo xam ne nag dañ ko def su la présidence d'honneur de son excellence le président Macky Sall soxna Mariam Faye Sall bu fondation Servir le Sénégal jagleel bés bu ne ki nga xam ne moom moo ko moom di Modou Thiaw bu Petroflamme Pape Amadou Fall Imam Moustapha Niang bu Sirmam Voyage soxna Zeynab Sow di yaayu daara soxna Ami Thiang nekk ca daara Ali Imran ba ca daaru ci bu Aminata Diop bu CTO fédération Ali Imran ñu di ko yëgal itamit Ndeye faatu Diallo nekk ca Albert Royer maire Zeynabou Doucouré nekk ca marché HLM Lat Diop di responsable politique Aïda Sow Diawara responsable politique ak ki nga xam ne moo di Cheikh Gaye kon woote baa ngi noonu bésu sopp nabi cellule bu golf ci njiitu Assane Diop mu Iran Ndaw ñuy wax na képp koo xam ne bëgg nga ci lu la leer mun nga jokkoo ak moom ci 77 640 68 25 77 640 68 25 ñu ñaan yàlla bu ñu ci jàmm incha allah fukki fan ak ñeent ci weeru janvier asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bi ak Sud FM seen rajo kon defe naa ne benn simil wala ñaar Oustaz Alioune moo ñu dese. waaw benn simil moo ñu wala ñaar moo dese xam naa suñu mbokk ba boo rek ñu këpp. <laughs> xaar. wala noo ko gisee. waaw noonu la mën nañoo dem te ñëw incha allah dem te de léegi xanaa fàttali mbokk yëpp rek ne tey jiila la sunu mbokk ma al oustaz si Ahmed tiijan gay am juróom-ñaari at ci biir suuf.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 جلائز لم داها جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى سعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نسر إليها أبدا آمين يا رب العالمين وجلها مما تتقنى بها هور العين والولدان في الجنة التي وهد المتقون وجلها من أحب السكر إليك وإليه عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي بلا مناي ولا انتهاء bila manaay wala intihaay tabarakallah onze heures jot na ba teg juróom simili oustaz Alioune lu ci tege jërëjëfal euh, Aliou Diarra jërëjëfal Maodo kii euh, euh, Alaaji Malick Ndiaye incha allah di leen xaar fi ak 12 heures ñu yokk ci français 13 heures ñu ko yaatal ci wolof. agsi ñu foofu li ci liñ fi ñu agsi mooy àggale laaj ci sëñ Mbàkke àggale laaj yi moo ci topp Oustaz Alioune ginnaaw bi ñu noppee ci tukkalooru baay ak loolu mu indi mbokk mi ñu ci teg Oustaz mooy euh, Moustapha Mbaye Moustapha Mbaye indiwut ab laaj ay siyaar la indi euh, faf dafa dog waaye ki ci toppoon Oustaz Alioune mooy njàng meng nekkoon fële ca Rom mhm. moom indi na ab laaj Oustaz mhm. nee na ñaari aaya yi mujj ci surat al ahzab wala surat al ankabut mhm. waaw kay moom la bëg nga ñëwal ko ci ñaari yu mujj yooyu <coughs> bu njëkk bi day tàmbalee fi suñu borom di waxee naan awalam yar yaraw annaa jacalnaa xaraman aaminan wa yuqattafu nnaasu min xawlihim afa bilbaatili yuminuun wa binixmatillahi yakfuruun wala bu dee damaa yëg lu ëpp mi ngi tàmbulee ci wa man aslamu mimman iftara ala llahi kadiban aw kasaba bilxaqi lama jaa bi di jeexe ci walatina jaahadoo fiina la nahdiyannahum subulana tabarakallah jërëjëf ci laaj bu am solo boobu al ankabut mooy saar wi ñu tudde benn gunóor bu tudd jargoñ yàlla yi wax ne ñi ma fi bàyyi wut yeneen yàlla ñoo jargoñ ñoo yi mbir <laughs> waaw tàmbali saar wi suñ mbàkki ci bu leen defee ne da ngay naan gëm nañ yàlla te duñ leen nattu ah kay waaye jeexale ko ci ku kër këri ma jàppale la moo tax mu ne boo man ne mimman iftara alay kaziba mm-hmm. kenn dàquta tooñ ki nga xam ne day sosal yàlla ay fen kooku kenn dàq koo tooñ ku kenn dàquta tooñ nag yaa fi dàq tooñ benn aw kazaba bil xaq lamma jaa wala mu weddi yonent bi alaysa fi jahannama masfan lil kafirin ndax yaakaaru leen ne sawar lum xat-xat ku goree di am fa kër waaw ku weddi yàlla hmm. am fa kër daal di jeexal na ki laay ji mujj sëñ Mbàkke ni nga ko jàng léegi wala si na jaayadoo fii na yàlla mm-hmm. muy kër kër yi di ma wër mm-hmm. dana daje ak moom fii na mm-hmm. ko muy kër kër yi di ma wër la nax di suba la naa dana daje ak man allahu akbar ci bokk waaye allahumma amin ku xëy di tàmp yàlla mu ne ma waaxu ngir bëgg a daje ak ku waaxu ma ñukk ku ñukk ma daw ku daw mètre ma daw kilomètre. bu yàggee ngay man ma yow. ndeysaan wallaay ndeysaan. <laughs> kenn fi gis loolu. wa inna allaha la ma'al muhsinin te ñiy def lu rafet. yàllaa ngi am ak ñoom fii ànd ak ñoom fee ànd ak ñoom fële bu ëllëgee. macha ci laaj ñàng mbeng ba jërëjëf Oustaz Alioune jërëjëf Imaam euh, Oustaz Alioune laaj baa ngi noonu de. <laughs> waaw waaw moom de waaye li ci gën a neex rek mooy ku xëy rek ma xëy. Hmm. waaw ku xëy ma ku xëy rek xëy jëm suñu man ma xëy <laughs> jëm ci yow. rek yàlla gore. <laughs> ndeysaan moom la sëñ Cheikh na woon yàlla sérieux. ndeysaan sérieux na lool. lool lool sax. Hmm. ah mu def lu métti nag sérieux googu. ci biir séeréer gi la. ndeysaan. lépp ci séeréer gi la. waaw dalay bañ a ñàkk. Mm-hmm. ah. bañ a ñàkk mbakke. maakaar ne koo bañ a ñàkk da koy neexal. mukk <laughs> bañ a ñàkk nit ba pare di fekk mu am papaam fonk ko lool nga jël ko wala nga jël jëkkër rek ndax doomam ndax bañ koo ñàkk xañ ko mu ñàkk ñàkk di dugg taxi yu xënt yi di liggéey ndax bañ koo ñàkk rek <laughs> xoolal Ibrahima rek borom taxi bu sonn bi kan moo fi yor taxi bu sonn bi xanaa man <laughs> ñëwal ci bi ci toog lay leen leer na lool te am na solo alhamdulilah maanaam jëf Mhm. yaakaar naa ni. Mbacke dese na ko ne dese ah, waaw kay dese na ko beneen laaj. Mm, oustaz mm, moom ginnaaw bi mu noppee ci loolu. nee na wamaa xalaqtul insa wal jinna illaa liya'budun. Mhm. waaye jubluwaayu aaya ji neen daa dégg suñu borom bind ci tudd ci nit tudd ci jinne ne bind na leen. mu mhm. bëgg a xam kan la ci njëkk a bind. Euh, ni laaj yi tëddee la. noonu la ci njëkk a bind. wamaa xalaqtul jinna. kon jinne la njëkk a bind. door ne wal ins. jinne yi ñoo mag nit ñi. jinne yi ñoo mag nit ñi ndax iblis ñu ko fi mag bëriwuñu ca kaana minal jinni ndeysaan moom iblis waaw yàgg na fi de tabarkàlla <laughs> te kaana minal jinni waaw moo tax sëñ Moussa Ka ne iblisu jinnee ndey ja bàyyi bàyyi naari jeex na moo bañ moo tax mu bañ aadama bañ muxtaari waaw <laughs> ndeysaan kon mu nga kon jinne yi ñoo mag nit ñi mhm. wa shukran ndeysaan macha allah waaw <laughs> imaam li jeexal na ki topp mooy sëñ ma eh, Yatma Mbodj. ma Mbodj waaw. ca Ñang Ba Mbodj. Hmm. ndeysaan eh, jërëjëf eh, Ñanga Mbengue ca jëf jërëjëf Yatma Mbodj mooy ci toggu Mba Oustaz. Hmm. Yatma ma na. Hmm. moom de dafa gis ci internet bi déedéet. waaw dafa am am koo xam ne daal dafa am lu muy wax. dafa am lu mu wax ci ci ci ci rajo yi la yaa ngi. waaw ci rajo yi yi ci rajo yi. mun daal def dafa ne wax ba pare ne lii ma wax nag. maa maa kenn wax ko maa ko maa ko xalaat daal du lu du diine wax wala lu ma jàng fe muy ndax nit mën naa am boobu dayoo jékki-jékki rek ni maa wax lii ci diine te amul foo ko teg ni ma maa ko xalaat déedéet xam nga ni ko junj sànq mm-hmm. gis nga am réew mm-hmm. ku fa amul bàjjan mm-hmm. yàq fa yomb la ku fa amul bàjjan moo tax réew day wut lu ñu tuddee visa di segg ñi fi ñëw noo tudd loo fi wut kañ ngay ñibbi yow mii di fi ñëw yaay kan soo paree ñu ne la loo fi wut ci réew mi ba noppi ñu la kañ ngay ñibbi loo ko mooy penc mi ku ne mën na fee nekk ku ne mën na fee wax loo ne mën nañ ko fee wax. wa sukkuraan ci laaj maam solo bi. am na solo wax na dëgg de réew mi daa bari pëcc xoo oustaz waaw ah parce que kenn du laaj nit loo fi wut dëgg la de duñ ko laaj yaay kan duñ ko laaj kan ngi ñibbi xam nga oustaz li ngay wax léeg-léeg nit romb xam ne yaa quelque chose li nga lu la fa neex def waaw léeg-léeg firi mi yomba jege lool waaw bari na koo xam ne koñ ba mu dëkk wala wala oustaz mbay mi maanaam taset jëm dëkk mu mhm. doon génn ca mbedd ma wala muy def dara dana ko sóoraale waaw ndax mbokkam ya koy gis waaye bu demoon ba màkk kulibanta waaw bu bu ko neexee jënd mburoog ndambe toog ci digg mbedd mi di ŋaañ ndax danaan kenn xamuma fi lu ma neex def man dunduma dunduma waaye kenn dunduma dunduma kenn moo tax gan ñeet tuwarkal la seetal loolu sii suñu nag waaye gan ñi nañ leen xool ni ñuy ñëwee waaw góor <laughs> dëgg la xam nga léeg-léeg nga gis ci Europe wala ci France wala feneen fu mën a doon ci dëkki tubaab yi ñu xaw a sévère trop ci dëpp nit ñeeg contrôle bu kii da ñoom dañoo res ak ñoom dañoo siis fekk na dam kenn ah. raw ci màkka dëgg la màkka wala yaa ngi doon sa passeport denc mm-hmm. de mm-hmm. ñibbi jot jox la nga ñibbi dëgg la te nag pourtant ñun ñoo xeeb suñu réew mi waaye buñ ko jafee loolu it gars yi dafi jafe ngir dugg fi waaw parce que nag ni ñu bëgg a demee la gars yi bëgg ñëwee fii dafa am yooyu mbàkke dañ koy jaay waaw culture réew dañ koy jaay mm-hmm. sport réew dañ koy jaay dignité réew dañ koy jaay la de dëgg la de loo ci yombal ñu falax falaxee ko. dëgg la de. ndeysaan xam naa sax oustaz fi ma ci bëgg a dugg si un peu mais mm. moom itam dafa laalaale loolu. ñun fi mu ne dafa dem ba tey sax euh, yow boo góor góorlu woon ba ne da ngaa bëgg a samp ab société wala dara boo moytu li ñu lay teg ci ay impôt teg la ko ci ay fiscalité yoo war a fay. dana la yàlloo ba doo dem waaye bu ab étranger ñëwee bëgg suuf ñu daggal ko àll defal ko hors taxi defal ko nangam am na bitig bu xew ci dëkk bi danañ ci mas a def waxtaan mhm. bu rëy a rëy lay doon ñu ubbi ko ci koñ yi nga xam ne fi mu ne bu ay pexeem doxee mhm. bitigi koñ yeeg supermarché yi sénégalais yi doon yaxantoog yëpp ay daanu te loolu ay étranger ñoo ko fi def oustaz jeex na mooy li ma la wax rek am pénc daal oustaz Mbacke <laughs> ku fii ñëw hmm. nañ laaj ñetti laaj rek hmm. yow yaay kan hmm. loo fi kañ ngi ñibbi daa am solo waaye ñëw dëkk ah indi say jikko indi say nangam indi say nangam dëkk hmm. léegi tey nga nga jaaxase nu mu tëddi hmm. parce que nag am réew da ngay yëg ne yaa ko moomal sa bopp. muur ko ji du ko defar si paase du ko defar si dañuy wusu lu ñu am rek. Mm-hmm. monsieur Korone. torkal la am laal ci wàllu mooy intérêt bu ba. Mm-hmm. loolu tamit dina mën a jur yu bare bare yooyu tamit lu war a xoolal daal dëgg la am na solo. am na solo Oustaz Alioune jërëjëf xam naa da nga koy beral ab tombam loolu. mu màccee wax daan ci xool incha allah. incha allah ayca. jërëjëf euh, Yatma mooy ba léegi ma day dafa wax ni dafa gis ci WhatsApp bi. Mhm. benn jamaïcain boo xamante ne dañ ko ni ci ci kii photoom mu yor kaamil bi pare te pon di tux mhm. muy laaj loolu daal ñaawloo na ko ba ca kanamu yàlla. jullit yëpp ko ñaawlu bu fekkee nu la amee. Mhm. abdul uh, uh, kaamil bi laa yamassuhu illa al mutahharun ku setut ku laabut bàyyil nu ko fi wa shukran jërëjëf sëñ Yatma Mbodj ci kër Bambo Yatma ki nan nan Mbodj ci kër um, ci kër Bamboj Bamboj ci kër Ñang Bamboj ca Njang ca Njang voilà tabarkalla xam naa ko attrait étranger duñ ko gaaw a mën a wax. <laughs> sëriñ Modou Cissé ca. Euh, fële ca sama dëkk ba. Jilleeru Cissé voilà ca Jilleeru Cissé la. maa ngi koy nuyu foofu suñu dëkk yi la ñun waa ci la. dañoo bari ay dëkk ci réew mi. Mm. <laughs> ci la wunte yooyu yëpp. kii mm. Mm. maa ngi leen di nuyu. <laughs> nag mbay genn ngeen jàmm mooy mbay mbay. jërëjëf oustaz sëñ Modou Cissé nee na daf bëgg nga ñëwal ko ci sóorat ar-Rahman. Mm-hmm. ci aaya ju njëkk ja ba ca aaya juróom. Mm-hmm. Euh, aaya ju njëkk ji mi ngi tàmbalee ci ar-Rahman allama al-Qur'an. Mm-hmm. xalaqal insaana allamahul bayaan. as-samsu wal xamaru bi xusbaan. wan najmu was sajaru yasjudaan. tabaarakallahu <laughs> barki démb lañ jóge ci foire bi waaw. léeg nga dégg mbërum làmb di bàkku mhm. di wax ñi mu gaañ mhm. te du wax ñi ko gaañ mhm. waaw di bàkku rek ku ne mu ne maa ko dóor daan moo ruq ca cil nax mbay faati ca càlle maa ko nax daan waaw jibi sàll ca caaro yi maa ko nax daan waaye du wax moom ñi ko nax daan sunu borom war bàkku war a teg ci foir bi ay marchandise am mhm. muy foire des xéwal mhm. muy bàkku tàmbale ci arrahman mhm. waaw puus leen làng gi borom yërmande ji ñëw limal leen li mbërum làmb mi lim yu ko raw mu limal leen ko ñu ne ko acca mu ne allama al quran sal mbàkke ndekete xéewalu alquran mooy xéewal gi ëpp te gën ci xéewal yi mm-hmm. ndeysaan moo tax mu tàmbalee ci mm-hmm. allahu akbar te mm. gi gën ci al xéewal yi ndekete mooy alxuraan mooy alxuraan ndeysaan ku ko am rek am nga xéewal leneen lu dul moom daanaka du xéewal ndeysaan booy sukkuraat fàtte ko mbaa nga bàyyi ko fi mbaa nga mere ko dëgg la de wax nga léegi sax doguma la lu ma wax Oustaz Mbaye léegi ne ko teraanga mënta weesu euh, bu yàlla waxee nga xam li mu wax mhm. doo wax kenn lu yàlla wax waaw ku yàlla defal teraanga yi lu yàlla làkk nga xam ko <laughs> teraanga mënta weesu ah, <laughs> moom rek nag ngay dem yóbbaale ko moom la suñu Ousmane Ndiaye wax fii biir mhm. dëgg la allama al quran oh ñu ne ko waaw mu ne xalaqal insaan muy ñaaru lu xéewal gi mhm. bind gim bind nit nit mel nii naan dama ne ñu naan ko han muy doxee tànk di lekkee loxo sam <laughs> ñu ne waaw mu ne ñetteel xéwal mbàkke allamahul bayaan bayaan <laughs> al bayaan waaw nga xam ne loo wax duñ ne lu max allamahul hmm. bayaan yàlla nu ñu ko defal amiin mooy wax ji day leer daal wax jeex na <laughs> la la la la waxoon sunu borom ba mu ko bëggee yónni mënumaa dem. wallaahi ndeysaan lu tax munoo dem mu ne ko dafa faa def bàkkaar. Hmm. dama faa rey nit. waaw <laughs> loolu la dem mu ne ko des na kay. damaa dotam. dëgg la dotom ba pare defatu yaa ngi de logg-loggal gi day bari. ah waaw loolu la tee dem mu ne ko des na kay. damaa <laughs> ah, hmm. gaaw a mer. Hmm. Oh, yii yëpp day yàqi wax. waaw. yëpp de yàqi wax. li ma ci dégg lépp mënu ma ko wax Oustaz Mbaye du ma ko may. <laughs> du ma xaj du fi xaj Oustaz malheureusement. dégg nga <laughs> kon bu ñaari paas ñoo wax <laughs> kon ñetti xéewal la ngoog. waaw xewal gi a mm. achamsu. Mm-hmm. jant bi wala meññ kaw. Mm-hmm. wal xamaru. Mm-hmm. weer yi wala meññ suuf. Mm. jant beek weer yi bi xusbaan ku ci ne yaa ngi ciy réglé gooy dox. kii trois cent soixante cinq jours lay dox kii trois cent yem cinq cinq jours yi manqué la. waaye ñoom ñëpp kii day dox at kii dox at waaye ñoom ñëpp ci régla réglaas la ñuy dox moo tax nit ñi mën a xam weeru at mi ñaata minute la mën a xam weeru weer wi ñaata minute la wa najmu wa shajaru yasjudaan biddiw yeeg garab yi ñoom xam nañ loolu te nangu nañ ko wa samaa rafaaha wada al misaan yëkkati asamaan si teg fi équilibre. Mhm. wasu koron ci laajam bu am solo boobu. <laughs> macha allah Imaam li. kii lii lépp koo def sañ a bàkku. waaw waaw góor. waaw lii moom. Mm. ku def lu kenn mënul. ku mm. la neexee bàkku. góor te moo daan ñëpp. moo daan ñëpp. kon bu ko neexee ne cur. waaw <laughs> ah, sëñ sëñ Abdoulaye moo doon wax ne foo dégg subhaana ah. bu laaj la ca tege nit mënul la nit mënul ko nit lott na ci <laughs> jàll jalaaluhu fas kamaalu dese na beneen laaj bàkke dese na beneen boo xam ne moom la ci toftal oustaz ma nga ca suurat al buruuj mhm. moom la joxoñ oustaz mbay euh, fàtte nga aaya jam jàppoo ko aaya huit la aaya aaya huit ci suuratu buruuj aaya huit ci suuratu buruuj oustaz mooy tolloog fi suñu borom subhaanahu wa taala di waxe naan mm, wasamaayi saatil buruuj ba ca aaya six huit wamaa naxamu minhum illa an yuminu billahi azizil hamid alladi lahu mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli cheyin shahid sunu borom nee na maa ngi giñ ci asamaan seeg bën bën yi ci nekk maa ngi giñ ci bisu ràndiwu ba hmm. maa ngi giñ ci ki seede ki muy seede maa ngi gàddu yet di wër asaabul uxduud hmm. <laughs> ah ñoom lay wër waaw waaw ndeysaan baña mu ne kera bañ taalee sawara wa toog mm. lañ doon def yëg naa ko mm-hmm. est lañ doon def mm-hmm. naa ko mm-hmm. mm. mooy buur ba toog na nekk ko ko weddi mu lakk di lakk ba lakk fukki junni nit ak ñaari junni nga ne yàlla ñoom luñ def mu ne wa maa naqamu minhum illa an hmm. yuminu billahi al aziz al hamid hmm. ñàkk démocratie rek lañ def rek rek penc mi liñ bañal nit hmm. mooy yàllaa ma moom moo war a moom sama kër moom samay doom penc mi loolu la ñuy bañ ñu ne ko loo ko waxee waaw wa maa naqamu minhum illa an yuminu illa an yuminu billahi al aziz al hamid allazi lahu mulku samawati wal ard ah, te kat kooku ñu gëm bëgg ko moomale lépp moomam lépp ñu bëgg a nangu lépp ci moom jox ko ku dul kenn hmm. tooñ rek wala wala kulli shay'in shahid lépp laa fekk ndeysaan dox leen ñu dem <laughs> bu ko waxee mata gëm de <laughs> ñëpp tëkku woon ñëpp jàpp na leen <laughs> allahu akbar la waaw moom kay tabarkala boo xam sax fooy duggee waaw kon nu faf dem ñàkk ñàkk démocratie boobu moom ah. boobu nga ko firee hmm. dinañu fàtte ñu ngi ci 2018. wallaay wallaay kon dañu baax na. <laughs> Mm-hmm. Mm-hmm. loolu moo nekkoon laaj bi nga xam ne moom la mbokk mi di sëñ Modou Cissé nekk ca Jëlëru Silla loolu la indi woon Imaam li Dooro Silla sama xarit bee ca Paris suñu xarit ba ca Paris moo ci topp. suñu xarit boobu di sa doom bàyyi tubarkalla moom te moo ciy topp doole de ginnaaw nuyoo bari oustaz yi mu indi yëpp euh, te mu matale ñu ngi koy delloo dëgg sëtal yaayam jooju xam ne feebaroon mm-hmm. dafa wax rek ci li li ñu doon waxtaanee mu ni daal jigéen ku ko ñee doo ko dimbali. nee na loolu ci la ànd. waaw nee na loolu daal mooy gis-gis jabar daal. Uh-huh. ak sëriñ. Uh-huh. ah waaw. ku leen doo leen dimbali. wallaahi. bu leen ñee rek. wala mm-hmm. mm. ñeer xool liñ amit bul teg sa bët ci liñ yor. déedéet jàppal ne war ngaa def te yàlla tax nga def te yàlla tax. boo boo ko defee rek noppalu. Mm-hmm. <coughs> moo tax mën ngaa fekk sëriñ mu yor jal lu foofu jël def ca waaw ndax sëriñ bu amagul barke mu gën a sonn ci sëriñ si wallaahi sëriñ bu amagul barke mu gën a sonn ci sëriñ lan mooy sëriñ bu amagul barke sëriñ bu amagul barke mooy oustaz Ahmed Dame Ndiaye nekk ci Kër Massar mhm. nu defee ne mu ngi ak lépp Mm-hmm. ku fa jaar manqué paas jaar këram. Mm-hmm. <laughs> ndeysaan te amul barke. <laughs> sañceem yi xutbaam yu metti yëpp amul barke. ah xam naa am na barke waaye barke bi ko dem mënti la woon. ah ndax waaw. <laughs> fan yëkkat dégg invitation mu ne otoom daa paan ma lan. baax na ne gars yi jéem leen koo rek man. ma ne ko non sa yow ndekete yi doo dem quoi. waaye yàlla na ko yàlla yokk wér. amiin amiin sama sëy mooy sama sëy de. wa shukran daam tubaarkàlla oustaz am na solo. macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax. walaay ndeysaan. ayca Maali. jërëjëf jërëjëf waaw. jëli yadd euh, jëli yadd mooy tasum sëñ Mbàkke. waaw oustaz jëli nee na. Hmm. waman yatawakkal waaw waman yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu hmm. inna llaaha baaligu amrihi qad ja'ala li kulli shay'in qadra mu hmm. ngoog ci li kulli shay'in xadir euh, bu dee ca ba nekk ca sóoratu al mujaadala day yàllaa nga fay wax ne lu ngeen di def bi ngeen ma ci séddee sama cër mm-hmm. am ci solution yomb leen mm-hmm. waaw boo dugg ci dara mm-hmm. boo ci duggee ànd ci ak yàlla rek génn ca yomb la waaye boo ci duggee yow dong te àndu ci ak moom génn ci jafe la mu doon wax ci wàllu hmm. kay kay fase jabaram te fase ko fase woo xam ne wii hmm. fasem sunna la hmm. wala fasem fay li fasem sunna ak fasem fay la day tax jotaat sa jabar yomb la waaye fasem mu weesu fasem sunna ak fasem fay la day tax nga son lool te doo ca jot ndeysaan wa man yatawakkal ala llaahi nag fa huwa hasbuh ku ku wéer say mbir yàlla mu doy la sëkk solution yomb la. ba mhm. sukkuroon ci laaj mu am solo bi. est-ce que ba laaj ci tontu yu am solo yooyu ba tey Mbàkke mu nee na moom jër yàdd mhm. nee foofu ñuy liggéey ñaare wala ci gox yooyu soriwu ko nee na day fay am yàpp wu ñu fay jëfandikoo mais yàpp wi ay machine ñoo koy liggéey. léegi nag am naar yu nekk foofu ne ko yàpp dafa xaraam mhm. euh, mënoon laaj ndax yàpp yu machine yi liggéey wala yi mokkal wala nangam nangam wala xaraam nañ dellu ci suuratu almaida mhm. sunu borom wax ñu ne mhm. wa taamu lazina utul kitaaba xillun lakum waaw waaw ren ndik ñi am téere démb chrétien yi ak juif yi dagan na dagan na ci yéen ngeen lekk yàlla xamoon na ne dana toll foofu machine ay rendi waaw dóor martu mbaamu dagg baat ba mm-hmm. yàlla xamoon na ko mm-hmm. Mm-hmm. kon nag xalaal beeg xalaal bi lépp xalaal bu dee yàpp ganaar daal mm. jëndal sëriñ Samba mbay ne booy togg nal bisimilaa booy lekk nal bisimilaa yi rek rek jàmm na ñooy. rahmatulah Ali. affaire yi jafewul jàmm na ñooy. affaire yi compliqué wul loola. waaw ñoom. waaw bu marketing amee xam nga bay def marketing danga naan bii mooy dagan bee nangam. bu ko defee gars yi bàyyi réew fu mel ne Italie yooyu. Mhm. dañuy naar yi dañuy dem jënde ko ca euh, supermarché yi nga xam ne fa ngay duggee ji. Mhm. fa la ñuy ñëw jënd fa ginaar yi ngay jënd. jënde ko nangami euro bu ñëwee taf ci xalaal jeex na bii nag ñu teg ko bañ cee xalaal ne la bii mooy xalaal bii du xalaal jaaye la ko yow ci xalaal ak ñàkk xalaal lu cher la mm. marketing la waaye daal wa taamul mm. la sunu utul kitaaba xelul lakum wallaay wallaay wa na solo kon julde taal moo ci topp julde taal oustaz ñu nuur la joxoñ aaya 31 30 aaya 30 aaya la joxoñ oustaz aaya 30 mi ngi tàmbalee fi borom di waxee naan euh, xullil muminin mm-hmm. yaqudu min absaarihim wa yahfazu furujahum dhalika mhm. azka lahum inna allaha xabirun bima yasnaun lay ndeysaan surtout Noor mooy yi nga xam ne yàlla dafa bëgg a leeralal pénc mi mhm. ñi bëgg samp famille arkaanu famille mhm. arkaanul usra nga bëgg mu dëgër mu di leen wax yi nga xam ne bu amee ci biir pénc mi day yàq famille da yàq njaboot ba toll ci nag ci góor ñi mu ne mu bi waxal ma góor ñi ñi nga xam ne ni gëm nañ la gëm nañ ma hmm. nañuy wàññi seen xool yi hmm. yaxuddu min absaarihim nañuy wàññi ni ñuy xoolee ah, wàccee leen ko waaye waaw hmm. wa yaxfazu furujahum mën a takk seen tubay ndeysaan zalika xool bu yem te takk sa tubay azkaa lahum moo gën ci ñoom moo gën ci penc mi dëgg la de inna allaha nag xabir li ñuy def xam naa ko waaye yow laa bëgg nga waxal ma leen ko Hmm, yàlla xooli ci suuf ak yëpp xam na ko ne na. waaw waaw door na nga ñëw ci jigéen ñoom it. waaw xolli mu min yàquduna min absaarihinna. Hmm, hmm. waaw moo ñuy dimbali nag. waaw ba demee réew yi nga réew yi naar li ci ëpp. laay ji benn xaaj bi la ñuy jël. dañ naan ko jigéen muurul. muural sa xar kanam bi. muural sa lépp. léegi ku góor ki ne moom. moom ñu bàyyi ko rek yàlla nag ñaar yëpp la wax moom ndax ku démocrate la. dëgg la de kii dafa kii wàññi lii kii wàññi lii. ngeen daje oustaz bi isti lii amee modd yi xew sax. ci ngay xamee ne xool c'est très grave. waaw xool bi ay wax la léeg-léeg ngay xoolante bi ay côté yoo xam ne wuuwe yàlla kay nant la oustaz. <laughs> xabirun bi maa yes na ko. <laughs> man oustaz dem naa la foofu laaj sama laaj bopp. waaw saa yu doy ree. <laughs> sama laaj bopp. Ah. xam bi maa yes na ko lay ree. Ah, moo mucc moom fu muy mën a amee ginnaaw fegu gi amul. te li yàlla waxoon gars yi appliqué wuñu ko. Hmm. léegi nag ñii kot code faar ak ñii faar. fu mucc mën a mu mucc fi ma amee yaay si na amoon. Hmm. taqullaha mastataatum. Hmm. waaw booba gën a booba baax na. to boobu non boobu baax no comment. no comment ko shukran. <laughs> def sa kéem tolluwaayal kàttan loolu loolu lay tekki. waaw maam jéem a la moytu loo man rek. rek ndeysaan. tey ndeysaan hmm, ndax yàlla ay ca imaam yi. <laughs> jërëjëf oustaz jërëjëf Mbacke kii ci topp mooy Birahim Ndiaye. Hmm. oustaz Birahim mu nga ca Marsati leen ginnaaw ziar yi mu indi ak nuyoo yi moom mu ngi laaj fële ci surtout xaafir yi. Hmm. yaakaar naa mooy fi tolloog ay onze ans. Mm-hmm. waaw mooy ay onze. ay onze rabbana na tey nii. walaay ndeysaan na tey nii waxeetanas na tey nii fa atrafnaa bi zunubinaa fa hal ilaa xuruujin min sabiili. macha gaa yi dañu ne sunu borom. Mm. dee na nu xott. <laughs> dee na nu xott. Mm-hmm. rey nga nu rayatin nga nu. Mm-hmm. dundal nga nu dundalati nga nu. ba dee ji sàpp ñu rey dund gi sàpp ñu fa atraf naa bi sunuy bi naa loo ne noo ko def rek nu na ndeysaan nangu nañ <laughs> nangu nañ waay booba sonn nañ waaw waaw waaw pexe amul loolu loo ne nu rek nu na dañoo teelu te loolu léegi nag am nañ benn laaj rek mooy fa hal ilaa xuruj min sabil ndax mën na noo génn comme nangu nañ suñuy bàkkaar waaw hmm? <laughs> loolu yëpp noonu rey nga noonu deux fois dundal nga nu deux fois léegi daal yàlla fa atrafna bi zunubina nangu nan léegi nag faalihi laa xurujin min sabil tabarkal wa shukran ci laaj boobu yàlla rek am tontu ma waaw hmm. yàlla dafa ñeme débat oustaz daa yor argument xanaa. ak waaw dafa argumenté wu. ndeysaan moo ñeme ko. foo coupe rek mu fay. <laughs> ndeysaan moom de ñeme am oustaz moom. Ah. <laughs> comme li ngay bëgg a wax moo la ko xam gën xam na koo xam ne yëpp ba pare. <laughs> man doomu aadama moom sëñ Mbàkke. seen yooyu ni may jaaxale bu ngeen koy wax innal insaana li rabbihi hmm. lakanuud. waaw loolu tax mu koy fekk ci logique am. Hmm. innal insaana hmm. li rabbihi lakanuud. lakanuud wa innahu ala dhalika la shahid. doomu aadama nee na loolu ko yàlla wax ne lëkkanuut mhm. nangu na ko mhm. wa innahu li hubbil xayri la shadid mhm. léegi nag il faut kon yàlla fekk ko ci logique am waaw parce que doomu aadama kanut gi say ko yàlla yëkkatee fi mu mu fax ak moom fi mu toll ndeysaan te bàyyi fi xar yeeg nag moom yàlla mënoon a <laughs> ko di ah waaw parce que fi mu ne yéen da di firi naan yow ma la xiyaam suñu borom naan li ma nin mulkul yow ma di bàkku waaw boobu dañ def ni ko jalaal waaw mais bàkku googu ama jërëtu ko rey ñu ñun ñëpp bañ dee mu mu maasale tabax yi. def yépp lu muy bàkkooti. déedéet fenn fa. day jëfandikoo jamaal. waaw moo tax du bàkku foofa. <laughs> waaw bu jëfandikoo jalaal nag. waaw doomu aadama day aajoo suñu borom bàkku ba mu xam boppam. ndeysaan. gisuloo oto ba la mu ñu bind ci wet ga kay borom. waaw luñ ci jublu. ah mu nga xam nga ci bind moo ko moom. wane ne maa ko moom waaw. ndeysaan moo MOS. waaw Mor Ndaw transporteur. <laughs> wallaay ginnaaw raay. wallaay ndeysaan dafa tee nga moom oto bi. ah ndeysaan Mor Ndaw mii moo bëgg a feeñ. <laughs> Imaali jëlal jëlal jëlal gaaw jëlal. kon ni nga wax yàlla daa a feeñ. jëlal dafa dul xeeb dafa dul xeeb dafa dul xeeb victoire de. waaw ah suñu borom. Mhm. doomu adama mel noonu ndax dégg naa fi ne loo ko bàkk mu xeeb ko nga <laughs> naan subhaanallah mu naan danaa la defal ay teraanga <laughs> yow moom faaw ma dugal sama àjjana ji <laughs> alhamdulilah mu gën a kontaan naan la su ma sañoon ngay naan astaghfirullah rabbil alamin waaw nga yëg ne maa fi nekk man dong nga xam ne lépp man na koo baale waaye nee na sax koo ma booleel rek ma génn ci yow waaw man daal affaire am daal moom ndax ñi ci penc mi bëgg ñu bool leen ci moo tax moo tax yàlla mi jëla jëla jëlaaluhu acca ragal yàlla <laughs> aywa Birahim Ndiaye ba léegi oustaz mm. nee na waaw gaa yi nga xam ne ñu nekk biir jumaa ji waaw imaam yi xul bi ñu seen i whatsapp waaw di di di di koseeka da lay xan jumaa hmm. da lay xan jumaa isaa qulta li saahibika uskut hmm. wal imaam yaxtub hmm. faqad laxawta Mm-hmm. waa man laxa mm. fala jumaata la la ilaha illallah yonent bi salaa salaam nee na bu ajjuma imaam di xutba mm. na ñëpp bàyyi lépp mm-hmm. ku yoroon kurus tegal mm-hmm. ku yoroon jukki tegal ñu ne cell déglu ko déconnecté téléphone yi wala ñu fay ko jeex na léegi jot message boo xam ne doo ñàkk a mën a tontu boo ne naa bind rek ne boo ne sa morom fayal sa téléphone bi sax yow mi ko ko wax bew nga te ko bew amoo juma kon nag doomu aadama day xam ne whatsapp yeeg téléphone yeeg yooyu Mm-hmm. bi ngay ñëw da nga ne allahu akbar yàlla gën rëy yooyu mm-hmm. man denc ko ba génn amal fulla amal fu très bien ah. mm-hmm. amal fulla wallaay ndeysaan <laughs> keroog damaa dégg sëñ Moustapha si bu Moustarchidun wala Moustarchidaat yàlla na ko yàlla gën a sàmm amiin ma ko wàll nga ko ndeysaan ah, waaw uh-huh. du jël privé numéro privé bi woote <laughs> uh-huh. ndeysaan si ma ne ko wàll ma ko ndeysaan naa amal sama laaju boobu sëñ Moustapha xam-xam bi fu ko jëlee ah am na ci loolu dañ ko ko jàngal am na ci loolu dañ ko ko fàggul mm-hmm. ndeysaan ndeysaan ma ne fi waxe moo laa fi waxe moom waaw lu xale naan suba ngay comprendre waaw suba ngay comprendre keroog ba Moussa ba Moussa ak sa ci xadir musaa mm-hmm. xam nga ne amoon na daara mm-hmm. bay jàngale di tontuy laaj am sañ bàkke ah kay wallaay xëy suba ba ngoon jot duñ ko laaj ba ngoon jot ndeysaan géwël ba tàgg ko sëkkam ci baaraam waaw lay ndeysaan ne ko Moussa doo seet morom waaw ah. <laughs> yow jàngi woo keer waaye keer ba mu agsee ca xadir <laughs> daf ne ko hal attabiuka mm-hmm. ala an tuallimani wallaay mimma lu mu ko ci tegal mimma ullimta wallaay ndeysaan mm-hmm. mimma ullimta ka jàngal xadir xam-xam boobee mm-hmm. du daara ba noppi ne ko rushda du école du université ne ko mimma alimta rushda tey oh bi yàlla di présenté xadir daf ne ko daf ne abdan aataynaahu min ladunaa ilma ilma wala wa allamnaahu min ladunaa ilma aataynaahu rahma wa ataynaa wa allamnaahu min ladunaa ilma ilma muy ilmu ladunniya jeex na xam-xam boobu nag dañ koy fàggul nit waaye nit du ko jàng ndeysaan ku koy fàggul nit oustaz ah sunu borom lay neex mu mu def ko ci nit mm-hmm. waaw sunu borom lay neex mu def ko ci kim bëgg muy wax ak nit ñi. Mm-hmm. moo koy sélectionné. waaw hmm? dafa am ñoo xam ne yàlla def naa leen. Hmm. dama bëgg ngeen wax ak nit ñi. Mm-hmm. daal di yët ay yëf lu jox leen ne wax leen ak ñoom. ndeysaan ndeysaan mu am ni def naa leen yéen noppi leen. Mm-hmm. waaw waaye da leen jàppale ñuy wax. ndeysaan. waxoon naa la ko ca mu taw yoo ne ya. wallaay waaw wallaay wallaay wallaay ndeysaan suñu suñu suñu dong ba leen nekk ci grande mosquée. ndeysaan kii Sambay. ndeysaan. kan la ca Bachirou Mbaye wala euh, mu ne keroog moom la ma sa xam ndeysaan ndeysaan waaye lu am solo la laay ndeysaan mooy penc mi ñaare koy defar ki yàlla ne waxal mhm. ak yàlla ne jëfal waaw <laughs> boo gisee suñ mbàkki di wax mi góor góorlu mhm. aco jàppale ko ca loola ndax jumtukaay yi mat mu mën a wax mu mën a def mhm. waaye nag bul wax yow waaw yow dañ laa jëfloo. ñun de dañuy jaxase rol yi. Mhm. mooy li Ahmed Dame na ci naafilay koor yi. Mhm. ñoo xamante ni mën nañu leen buuxante ci sàppee. Mhm. waaye am na ñoo xamante ne dañu war a naafile ci seen poche. waaw benn kii ngay def rek dugg àjja da nga naan la. waaw mu ngoog. oustaz da xam naa ne ilmu loolu nii boobu nga juñu noonu ak kii sëñ ma ne. sëñ Moussa. mi ngi lay <laughs> ma ne ko noggatu nga ma tey seetaan ci la a xam li mu lu mu doon. ndeysaan tarkalla ay ca fi yàgg. amiin amiin eh, jërëjëf Oustaz. Eh, kon Mbacke yaakaar mën na noo wéy ci Mbaye Ndiaye ah. Mbaye Ndiaye Kër Massar Oustaz nee na 31 décembre bi ñu génn genn góor a ngi nii wala benn boroom kër nee na moom daa toggal ay doomam daal berndeel leen. Hmm. ndax daa dëkk ak ñu koy defal seeni doom te bëggut doom yi ñee ñooña mu toggal leen. na yar doomam ñi bañ a ñeetaane ak bañ a dem fenn waaye bu mu changé togg. Hmm. torkal na yar ay doom ci toog seen kër. Hmm. yëg ne nit day am personnalité dignité. li nga bokk bokkoo ca moomoo ca nga bañ caa di àgg. mu war ci si ay doomam. wallaay waaw moo gën di changé togg ci. seet euh, euh, goo xam ne feetu àqida la. Mm-hmm. wa shukran mm-hmm. am na solo Imaah yi bay bon ñu rëpputal. mbay góor a bàyyi faa la ci topp. dafa duggoon far mu dagg indiwut ab laaj. Mm-hmm. Euh, ki ci topp mooy Soxna Ramatulaay Njaay. oustaz Soxna Ramatulaay Njaay nee na moom dafa am ay xar. waaye xar yi da ko mel ne dafa wutal ay xaj. Mhm. xaj ya di ko di ko wattu. di ko wattu mhm. léegi nag buy jox li ñam xar xaj yi xar yi. Mhm. nee na xaj yi dañ koy laal. dañ koy riisu di ko di ko riisu. léegi nag am ko ne nag da raxasu juróom-ñaari ndox. mu bëggoon xam loolu lan na déedéet juróom-ñaari ndox yu ñuy raxasu. Hmm. mooy xaj bu naan ci dara ndab. Hmm. isaa walaqal kalbu fii inaay ahadikum hmm. waaye du du du riisu gi. yaramu xaj beeg yaramu xaram mi soreewuñu. waaye xaj lay problème ba ak danger ba ma nga nekk ci gémmiñ ga ak yóot ya. waaw foofu la problème bi nekk. moo tax su la riisoo amul problème. incha allah. kon ndab yam leen di xonteeg di leen ko wëggee. waaw kay ndab li jëfandikoo ndab na moom séenee xaj xab ca. Hmm. yonente ba ne na nga ko raxas juróom-ñaari yoon. Hmm. juróom-ñaari ndox. ndeysaan na am ndox mu ànd ak suuf. bu la fekk nga yor njàpp sax bu loolu sa kii daal amul problème. ndeysaan léegi nag nag loolu ngay rax sañ Mbàkke. Hmm. sax yi jóge ci gémmiñu xaj di ca dem. Hmm. bët da ko mënut a gis. ok te itam saabu yi boo ko ci mën a rey xamaguma ko ci. Hmm. waaye suuf nag fepp suuf yeeg ñoom seen yooyu. da fu leen fekk ñu dee. mooy antique yi quoi. moog soccoog borosu gémmiñ ñooyam. borosu gémmiñ loo borosu borosu borosu. am na fa loo xam ne socc doo nga ca man dara. moo koy lu moo koy illuminer. soccu soccu soccu soccu bant arnaake waaw mhm. ah yonent bi yàlla lawla an asuqa ala lawla an suqa ala ummati mhm. la amartuhum bi siwaaki inda kulli wudu allahu akbar yàlla ko yàlla oh. fayal sang ba ci madina salla alayka allahu ya borom barrière or ba oh. <laughs> bàyyi Fatima ak Roqaya ak Umu Kalsum oh, yëpp <laughs> góor Xadijatu ak góor Aïcha ndeysaan góor am log ku ca topp lay ndeysaan <laughs> bu dee ma tax a gàmmu oustaz ba léegi moom soxna si di soxna Ramatullahi Ndiaye mhm. nee na moom dafa yàlla ko bàyyiwul daal am na tuuti teraanga. waaw ah, tubaarkàlla yàlla gën a yokk tamit léegi nag waajuram dafa mel ne génn àdduna. waajuram mu jigéen waaw waajuram mu jigéen. léegi nag mu bëggoon ko umraal. Mhm. am ñu ko ne ah umra gi day baax na waaye dem aji te ajagoo yow mooy mooy safara. Mm, euh, xam naa Oustaz Mbaye. waaw waaw noonu la waaye daa mel dégg mu mu damay euh, ko déggee laay wax. li nga wax it la waaye daal Oustaz nee na. Mm-hmm. Euh, moom dafa bëggoon a umra ji. ajoon na waaye yaayam dafa faatu te yaayam ajagut woon. ñu ne ko li nga umra mm. ji demal ajali sa ndey moo gën. Mm. loolu lu ci lislaam lii nga waxee noonu. ak li nga waxee <laughs> waaw. <laughs> ajali yaay. Mm-hmm. ak du ay farata. Mm-hmm. ay ndollante la naafi la. ajali yaay ajali baay mm-hmm. du ay du ay farata ay ndollant la mm-hmm. umra nag sunna la ci yow mm-hmm. aj màkka farata la ci yow kon su jotee nga am man demal defi ko am man nga aj màkka demal aji soo noppee nag yeneen yoon nga xam ne man ngaa am ni lii moom am nga xaalis boo xam ne bii na ma yàlla baal doye woo ko <laughs> lañ cay def du farata bu la neexee nga ajali ko waaye yëkkati woon boobu sax dem def ko ca daara te toog. mu mu ëppoon tuyaaba dem di ko di ko umraale mbaa di ko ajali. d'accord waaw su ko doon ci laaj. jërëjëf kon nag mbokk yi ñu xaw a rëppatal. des na nga ko benn laaj. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ni moom ko benn laaj waaw mu ni moom ci wàllu at. du mm-hmm. macha allah lu gone. Mm-hmm. daanaka xaw na làq lu mat si soixante ans. soixante quatre ans. waaw sama rakk la waaw léegi nag bi nga nee sama rakk la. Mm-hmm. Euh, daam fay bu jamonoy. waaw nee na dafa ma woo léegi ni ma Mbacke Sylla la exactement ñaari at la waaw. waaw kii sama rakk la ay soixante dix soixante onze la man ko déet moom ak maire bi de. Mm-hmm. <laughs> léegi nag moom nee na. man de maire bi ba mag. waaw dëgg la yow Oustaz mooy moom la mag. yow moom <laughs> tubarkàlla waaw nee na moom euh, ci aasam nii soxlaatuwul naa daanaka maanaam. <laughs> te laa ko naan yàgg fi sàll. problème yeeg xalaat yi àdduna yeeg. bëgg penc mi jub rek la tax a bi jaaw. waaw yàggagoo fi yàggagoo fi ayca. ayca. oustaz soxna si mm-hmm. eh, at yi mu am nii. Mm-hmm. daanaka moom soxlaatul sax maanaam ay mbirum. borom kër takkook yooyu ndax daal moom xam na ne xelam du dem ci yi ay gone yi xalaat. Mm-hmm. muy laaj ndax est-ce que mën naa am jëkkër yooyu. Euh, waaw ñàkk gee am njëkkër de am njëkkër gee ko gën. Mm-hmm. même bu xelam demul dara. waaw. Mm-hmm. ndax man raxiba an sunnati fa lay min. wallaay wallaay wallaay. sunnati mm-hmm. bi daan ko defe ne am na lu fi gën denc soxna mbaa ñu denc la. demal ak sa loolee te bàyyi man. ndeysaan. <laughs> ah man raxiba an sunnati fa laysa min. fa nii kon nag amal boroom kër jàpp koog jaamu yàlla rek. bu dul waxtaanu lal baak yi waaye nga yëg ne jaamu yàlla la jeex na mu yilif la sax léegi nga tàggal ko sant la gi sax la euh, am kilifa sëriñ Cheikh waxoon na hmm. boo demee ba amatu kilifa hmm. jar na nga dem sax ba ca àll ba hmm. gis fa garab gu mag wéeru ci suuf ga xalaat li nga war a xalaat dëgg la def ko muy sa kilifa jàngale na nu ne rahmatullahi ali am naa ci benn benn mbokk nga ci Angleterre ndeysaan ngeen baal ma misaal mi ko indi waaw ñëw kër ga ànd ak soxnaam ni ma am ah, sama yaay dafa génn àdduna mm-hmm. sama papa génn àdduna mm-hmm. oo oh, muy grand frère mm-hmm. man sax maa nekkoon taaw kii mooy sama soxna amaguñu nag doom ndax man ngaa nekk suñu kilifa rekk ma xam ndeysaan jot na waaw tubaarkàlla ba nga ci loolu mooy loolu mooy wut kilifte waaw wallaay maanaam jébbalu la daan tekki weer bu mu dugg xaw ma semaine bu mu dugg dana ma woo ni ma papa na nga def ndeysaan waaw am na kilifa loolu nga doon junj léegi oustaz Aliou. Mm-hmm. wallaay wallaay wax nga Silla. sama doomi baay ji. sóoratu nuur la duggaat moom mooy ñaareelu nit ku dugg ci sóoratu gannaaw julde taal julde nga woon aaya 30 Seexuna ca kaw a kaw nekk aaya 11 jàpp 12. fa suñ borom di waxee naan inna alladina jaau bil ifki xusbatum minkum laa taxsabuhu sarran lakum bal huwa xayrun lakum li kulli mrihin minhum maktasaba min al ba aaya laaye ja naa la ci asaab attaques yi mm-hmm. attaque médiatique yi mm-hmm. ngir déstabiliser mm-hmm. kër yonent kër yi dem ba ne ko sa jabar ji nii nangam nangam te muy kim gën bëgg ci soxna yi am copé <laughs> gaa ah? wax nañ ko ci penc bi tey doom ci kim gën a bëgg ci nit ñi bay gàddaay ànd ak moom ñu ne ko sa jabar ji nangam nangam hmm. suñu borom ne xaaram wax nag waa penc mi. waaw <laughs> wax jot na yàlla waxal nag waxal. <laughs> mu ne ña sos sos wa. Hmm. usubatum minkum mbooloo la ci seen biir lañ nekk. Hmm. li ci métti nag mbàkke mooy. Hmm. mbooloo mi wër yonent bi. ñoo créé loolu. ñoo ko sos sa gaa yii ngay xool. sa gaa yii ngay xool. waajaan ci seen biir. boo waxee ba noppi ñuy muuñ. ñii kenn la ci. minkum minkum ja waaw. kay. looloo garaaw yow nag yow mi ko teg. Hmm. ak famille bi. Hmm. laa tahsabuhu sharran lakum bu leen defee ne baaxul de. Hmm. bal huwa xayrun lakum lu baax la ci yéen. teg la tuuma. suñu borom ne bul defee ne baaxul de. ak baax as goro ko moom. as goro ko moom. wallaay. li kum li minum maktasaba min ismi ku ci nekk nag la nga def. da am lu toll noonu. lu toll ne la nga ca wax da koy. da nga ca am bàkkaar yàlla mu ne xam naa ka yokk xam naa ka sos xam naa kay interprète nangam nangam. wala si tawalla kibrahu hmm. ki nga xam ne nag moo moo moo joggati joggati wa nag hmm. minhum hmm. lahu azabun azim moom danaa foog ma duma ko du may métti yéen jullit nag ma wax ak yéen law laay sami'tumuhu lu teewoon bi ngeen déggee kàddu gi ndeysaan dhanna al mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim xayra lu tax ngeen lu tax ngeen ni ñaaw njortu ci gëm li waa ji wax loolu ma information bi ñëw yàlla ne lu tax jëlewu leen ko côté bu positif yéen. très bien ngeen miimal ko nekk palaasam nekk palaasam. waxaaloo da ngeen waroon wax ne. Hmm. haza ifkun lii ay ay ab sos la. Hmm. mu biin. wala sax ngeen ko mënul ngeen laaj ko quatre seede ba yi ma leen waxoon. waaw ku ko fekkee lii nga ñuy wax fekkee yi ngay wax nii ku ko fekkee. ndeysaan. wala wala fatulahi aleykum wa la massakum fi ma afattum fi adabun alim ndeysaan yàlla daa ni ma mel su ma ko melutoon. kon hmm. hmm, ngeen xam. ndeysaan hmm. ndeysaan na alors que ñàkk beneen nga wax ma ne. àjjuma ji ñëw da ngay indi tuuma rek ñu waxtaan ci. voilà très bien nag ma ko fàttali bu ñu ko fàttali. tuuma waaw tuuma xanaa damay fay comme waxoon nga ma waxu malaaka. di nga ma wax nu waxu yàlla même. waaw waaw day xam naa ñaari laaj ñuy des. tuuma rek indi ñaari laaj. parce <laughs> que lii ma dencal ko tuuma ji. <laughs> ayca. Euh, bon Ibrahima Fall. Ah. moom moo nee nga wax ak tuuti Serigne Cheikh. Hmm, ndeysaan jikkoy Serigne Cheikh Al Maktoum. boroom xam-xam la woon. ndeysaan <laughs> bëgg xam-xam. Hmm. Eh, xam boroomam bëgg boroomam. Hmm. bari xikma lool. am personnalité. ndeysaan bari xikma lool. ndeysaan te na jàngale. parce que. shaa'ir la woon. mutadayyin la woon. ndeysaan taqi la woon. ndeysaan taximaan bu mu mës a jël bu la fayee nga dem jëndi taxi. wallaay. wallaay wallaay ndeysaan ay sëriñ monsieur Kourane ci laaj am solo ci oustaz waxam yu am solo yi ci pénc ma eh, ci fajar dama koo dégg mu ne eh, xukamaa yi ñi am xel nee na ñaar ñi ñoo leen gën a jaaxal mhm. ki am alal ba noppi xaru waaw ak ki ñàkk ba noppi toog di jàmbat ndax ne ne ki ñàkk moom daa war a xam ne yàllaay xañe nag ndax léegi bu xoolee gis ne kër-këri na ba sonn amut mu xam ne yàlla doo ko xaj kon léegi nag nan lay jàmbate ci yàlla daa war a sant waaye ki am alal nag ba noppi nag di xaru <laughs> te alalam ji mënu ko régleel problème mi mu bàyyi ko fi xaru jëm fu mu xamut lan la fay fekki nee na ñoo ñoo gën a jaaxal ñi muus <laughs> sëriñ Cheikh sëriñ Cheikh ne wax nañ ko parce que laaj mujj mooy Mor li moom ma nga ci New York mhm. Euh, dafa doon wax rek nii moom sama laajam ñoom ñu nekk bitim réew nga dañ dañ fay nekk seen soxna ñoom sax ñoom gën a métti la mm-hmm. léeg-léeg contexte yi nekk foofu bokk la contexte senegal euh, ndax foofu time is money liggéey rek mm-hmm. léegi ki nga xam ne da nekk ak moom la muy sa borom kër sa jabar di la jëkk a xëy di la mujj wàcc nga li nga ñibbisi ba togg añ yow mm-hmm. te ñëwagul nga xam ne li la war sa diggante moom du ko mën a gum def loolu lu àtteem waa bu mu tee yow li la war nga ko def rek parce que li ko war te du ko def moo koy gàddu moom la war yow boo ko def yow lay gàddu mm. waaw kon li la war yow dee ko def rek mm-hmm. waa ji dafay wàcc si ndeysaan jabar ji ne ko waaw di war nañoo waxtaan de mu ne ko waaw jot na kay mm-hmm. mu ne ko jànq bi day dañ na dafa mm-hmm. mu ne ko affaire am la <laughs> ko ah dégg naa ñu ne yow mii de yaa ko ëmbal mu ne ko sama affaire la <laughs> <laughs> mu ne ko yëg nga damay ñibbi mu ne ko sa affaire la jàpp na ñooy. ku na affaire affaire am. yàlla <laughs> na yàlla ji. waaye mooy egg ba. <laughs> jërëjëf Oustaz loolu mooy laaj bi tontu. jërëjëf kon mbokk yi looy indi bu bëccëgee maa ngi ci yéen Yàlla Souleymane incha allah jeexagul mm-hmm. bu ñu nee ba vingt deux heures trente dana ànd ak imam bari nekk tëngeej incha allah mm-hmm. bu ñu nee ci guddi gi ne daal ñëw dara doon waa kër Gaye Tambaay si Ahmad Tidiane Gaye mm-hmm. moom la ñu daal ci Gaye Tambaay kanam bis bi am na solo incha allah sëñ Mbàkke jërëjëf Oustaz boo noppee ci tafsiru Qur'an bi dinaa ñëw ànd ak mbokk yi ci xamtu incha allah ñu waxtaane alquran ak daaraak yi nga xam ne moo ci aju tabarakallah ñun tey mooy nekk suñu quarante-septième épisode ci suratu al-Fatiha ay 29 Muhammadu Rasulullah maa ngi ci xaswatu badrin al kubra gaa yaa ngay dox ndànk-ndànk waaye dajeeguñu ca Badar. ndeysaan lan toxal si nekk dégg. oustaz euh, levée du corps am di sekk bi. waaw incha allah 15 heures la. 15 heures la boo ca jàkkay cité soleil incha yàlla ko yàlla yërëm. jërëjëf mbokk yi kon lu jub ci wax ji sunu borom lu jubut du moom nun ñu ñoo doon jéem ak jéem leen fee wuutu yàlla sàmm leen sàmm def jàmm ci réew mi réew mi yàlla yàlla defar seen i mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa ñetti simili moo te dix jot waaw sënkam wax dëgg yàlla daam mhm. de kon nga yóbbaale laaj bi rek léegi eh, léegi lan mooy solution solution mooy ku jigéen xam ne dafa sëy ñu maye ko muur ko mu dem liggéeyi ku góor xam ne dañ koo may muur ko yët ko kenn ku ci nekk jox la benn dawru wala ay dawraat yoo xam ne ay adwaar yoo xam ne yaa ko war a def. mooy lan dawraat mooy lan. mooy mooy rôle bi nga war a def ci kër gi. Hmm. kenn ku ci ne ñoom ñaar bu feesee place am rek jamono ñooy ñol-ñol du am. ndax bu kii manqué la wala kii manqué la rek wax de daal tàmbalee ñëw te wax ci penc moom wala wax ci ab sëy la mu yàq moo ëpp la muy defar. ñoom ñaar daal su Oustaz bu ko nekk xamee li la war ci kër gi te di ca nekk sa kem laay kàttan boo tëlee dañ xam ne yaa ngi ci woon waaye da ngaa moo xam ko góor la moo xam ko jigéen ku góor ku jigéen léeg-léeg la ko waroon mooy ne ci kër gi di togg ak yàq ak a fóot a root bu fekkee defuloo ko xanaa da nga xëy liggéey yi buñ la fa féetee xam ne la faa féete ku jigéen ku góor ki tamit noonu kon daal ku ci nekk dañ laa tobbil loo xam ne mooy saw sas la euh, alayhi salaatu salaam waxoon euh, Fatima ne li Fatima amalal bayti wali ali amala xaarijal bayt waaw bu ko defee kenn ku nekkoon xam ne lii mooy sama sama rôle moom laa war a def naa ko def ba mu jeex takk soo ko defee ba mu jeex tàkk kenn du am pochette wala ruq boo xam ne dal na ci jaar wa shukran ci sa laaj ba am solo beeg sa thème bu am solo bi. am na solo xam naa mi ngi noonu Oustaz waxtu wa mat na waaye tomb bu am solo la Oustaz. jigéen ji liggéey daal moom daa mel ne am na aw sas. ndax war naa góorgóorlu ba liggéeyukaay ba jat waaye war naa góorgóorlu ba diggante moog borom këram it jag. kër gi jagit borom këram it war naa góorgóorlu ba jàppale ko te bañ teg bëtam ci lim am waaye itam bañ a jël lim am moom di kopp-koppal nangu koo def ci kër gi jërëjëf jërëjëf <laughs> bu leen toxal seen ak déglu kon lu ñuy dem rek déglu xibaar yi ci tubaab déglu ko ci wolof daal di jël saat jotaay bi incha allah